yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. Auzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa sallallaahu taalaa wa sallama wa baaraka alaa nabiyyinaa wa mawlaanaa Muhammadin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu siwaat nañu ak yéen ci jataayi xam-xam yi nga xam ne daayira muxaddamatul xidma ak commission culturelle bi nekk ci biiram ñoo koy amal ngir di ko wettilente ak mbokki jullit yi ci koor gi muy jataayi xam-xam yoo xam ne yu am solo la làmboo na ay mbir yu bari am na ci ay jataay yoo xam ne ñu ngi jëm ci wàlli bindi fiq ñu koy wax ay duruus gis ngeen bind yu am solo yi nga xam ne jot na fee jàll yu jëm ci wàllu fiq am ci ay jataay yoo xam ne dafa doon ay tomb yoo xam ne dañoo xool ba xam ne jamono yi yittewoo na ko ñu war cee wax gis-gisu lislaam ca tomb yooya ñu tànn ko muy ay thème am itam ay jataay yoo xam ne dañ koo jagleel ay laaj ak i tontu yu jëm ci diine muy jataay yoo xam ne kon yu ama am solo la ñi ngi sant bu baax a baax mbokk yi ñuy topp ci biir réew mi ak bitim réew ak di wétlante ak ñun ak ñi nga xam ne jamono bu ne saa yu tàkkusaan jotee ñu bàyyi seen yitte ñëw ci biir jumaa ji fekk si jataay yooyu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci taxawaay tey nag ñu dellusi ak yéen ci yi nga xam ne dañ koo jagleel ay thèmes ay thèmes yoo xam ne dafa dëppoo ak jamono wala boog jamono dafa laaj ñu waxtaane ko tey jataayub tey bii benn la ci yooyu euh, di jotaay boo xam ne ñi ngi ko jagleel tomb bi ñuy wax masuuliyatul muwaatin tijaahal mumtalakaatil àmma suñ ko doon firi ci wolof dañ naan warteefu ki dëkk ci réew mi jëm ci li nga xam ne ñépp a ko bokk maanaam responsabilité citoyen bi ci li nga xam ne mooy bien public yi ndax am réew dafa am loo xam ne askan wépp a ko bokk du moom du moomeelu kenn kon loola am na taxawaay boo xam ne moom la ca citoyen bi war a am loola seetlu nañ ci at yi gis càggante gi ci am ci li nga xam ne ñépp a ko bokk foye gi ñu koy foye ba àgg ci di ko yàq wala ñenn ñi jàpp ne sax seen moomeelu bopp la lu leen ca neex sañ lañ koo def loola kon jar nañu waxtaane ko ba ku nekk xam lan mooy responsabilité am ci li ñëpp bokk li ñëpp bokk nag alal a ngi ci ay objet ngi ci ay yeneen i mbir a ngi ci loolu yaakaar naa ci biir waxtaan wi dana leer incha allah kon tomb boobu lañ fas yéene waxtaane ki ñu ko fas yéene àndal mooy sëriñ bu sa Assane sëriñ bu sa Assane yaakaar naa li arab di wax ghaniyun anit taarif jekki di ko xamleeti ci barab bi daanaka jaratu ko ndax ku miin jataay yi moom xam nga jëmmam at mu jot dana ànd ak ñun ci ay tomb léeg-léegi sax dana doon ñaari jataay wala lu ko ëpp di jàngalekat di gëstukat jiite daara ju mag jooju nga xam ne mu ngi bokk ci Azhar te ñu tudde ko maamam Serigne Mbacke Bousso te mu nekk fii ci yoonu Daarul Muxti kooku moom lañ fas yéene àndal ci waxtaan wi ci biir waxtaan wi nag xam naa dina ci leeral dana faram fàcce dëgg-dëgg lan mooy li ñëpp bokk li ñëpp bokk buñ ko waxee mooy lan lan ak lan mooy li ñëpp bokk lim li nit ki moomal boppam ak li mu bokk ak nit ñi mooy lan dana ko leeral su ca noppee tam dana leeral sabab yi tax ñu koy sàggane sabab yi tax ñuy sàggane li ñëpp bokk dana ko leeral dana leer itam yi nga xam ne moom lañuy yàq ci li ñëpp bokk dina ko leeral waaye dina leeral itam lan mooy gis-gisu lislaam ci li ñëpp bokk nan la ko lislaam gisee kon ñeenti xaaj yooyu dina leer incha allah ci biir waxtaan wi bu ko defee waxtaan wi nag mënees na ko topp ci ay jumtukaay yu bari bu dee ci télévision Lamp Fall TV dina ko jàllale en direct As-Samadiyya TV dana ko jàllale moom itam en direct en même temps dana ko tegaat dina ko rediffusé waat ci guddi gi lu mel ni site internet yeet MK TV wala mosquée touba point org ci chaîne YouTube bi dana ko jàllale Timis TV ci YouTube bi itam dana fa jàll en direct dana amaat rediffusion bu dee rajo yi itam salaamay dana ko rédifise waaye jant bi ak ceeñeer ñoo koy jàllale en direct kon fu waay mën a nekk rek mën nay topp waxtaan wi ci jumtukaay yooyu ñu wax kon ñi ngi ñaan suñu borom defal ñu tawféex ci fukki fan yu mujj yii ñu nekk nga xam ne yonent bi salaay salaam diggéñe ci ak njot ci safara te itam muy fukki fan yoo xam ne ci la ñuy làmb guddigu màgg googu nga xam ne moo gën junni weer yu yu mu nekkut muy laylatul xadr kon du ñu def lu dul jël kàddu gi jébbal ko sëriñ fàllu mu tàbbi ci waxtaan wi euh, ngir ñu gën a mën a teewlu bu baax a baax may ko nopp yaakaar naa bu ñu ko mayee nopp danañ jële ay bind yu am solo ci tomb bi ñu fa yéene waxtaane kon sëriñ Fàllu bismillah aousu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib fi teew ak ñi dégg suñu kàddu ñoo ngi tàmbali suñu kàddu ci nuyoo ak ziyaar ak ndokkale mboolem jullit yi ci weeru màgg wi ñu nekk di weeru koor jiite ci nuyoo ak ziar ak xalifatul am lil muridina si Muhammadul Muntaqa ñaan ak su borom yàggal ko fi di nuyu bu baax daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ni ñooy saytu jataay yu mel nii di la nuyu bu baax suñu Ablaay ci ni nga lay taayee tomb bi dem jëm ci warteef gàll ci loosu ku dëkk cim réew sa digganteeg alal ji nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk wala moomeel gi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk kon nag ñu ñaan ci barkeb sunu borom waaye ci barke bi weeru koor wi ñu nekk waaye ci bi barab bee ñu nekk nag suñu borom tasaare jàmm ak yërmandi ak barke ful ko ba mu bari lool mu tasaare ci àddina bi yëpp waaye rawatina réew yi nga xam ne ay jullit ñoo fi dund may ñu kaaraange akuk dal suñuy réew rawatina sunum réew di senegal ndax dañu nekk jamono joo xam ne nii bokk na ci liñ ci gën a ràññee mooy ak jaxasoo gu bari ci biir àdduna bi fu bari boo fa geestoo wala nga déglu fa dangay ngay yëg ne réew mu jaxasoo nga fay dégg bakkan yu tuuru alal yu yàqu njaboot guy tasaaroo bari na ci àddina bi lool tasaaroo fit ay fitna ak i natt yu bari te yooyu lu jëpp bu ñuy xool dañ koy mën a delloo ci jalgate goo xam ne nit dana ko jalgate lu moomul jalgate ko muy jalgate àq keneen wala ki moomeelu keneen di ko def ci façon yu bari nag am na koo xam ne ni li mu soxla ci yow mooy sa jëmm mooy fexe ba foqar ci sa personnel sa jëmm ba foqar ci ko ci yow seeyal ko ci biiram moom bu ko defee yow boobaa dootoo am loolu ci xeeti jalgati loo moomul la ndax jëmmi jàmbur ji nga bëgg a jël bëgg koo foqar ci ci boppam seeyal ko ci sa biir ba moom dootu am loolu ci xeeti jalgati moomeel jàmbur ci la bokk waaye tam léeg-léeg ñu def ko ci foqar ci sa alal joo xam da nga koo liggéey wala yaa moom alal ji daal ak noo ko moome nit ñëw dal ci sa kaw foqar ci ko jël ko di ko jariñoom loolu nit ñi dañ koy def réew yi dañ koy def nit ñi dañ koy defante seen biir réew yi di ko defante ci seen biir léeg-léeg it jalgate gi dafay nekk ci wàllu xel ak xalaat maanaam duñ jël sa jëmm waaye say xalaat dañuy fexee ba raxas ko ba mu set wicc def ci ñoom xalaat yi ñi nga xam ne nii moom lañ gëm moom lañ bëgg loolu lépp nag xeeti jalgate ak keneen la jalgate alal joo xam ne nii moomoo ko wala ñëpp bokk ci la bokk mu mel na kon dañoo dem ba ràññeetuñ diggante nit ki lim moomal boppam ak li nga xam ne nii dañ koo bokk ñun ñëpp moo xam boo jëlee am réew la mennum réew sunu biir réew yi léegi ñu baree bari xàmmeetuñ liñ moom ñoom kese ak li nga xam réew mépp ko bokk ñu war a àndandoo di ko saytu am yoon wuñ ko war a jaarale noonu mu amee ci réew nag noonu la amee ci àdduna bi àdduna bi ci am na loo xam ne nii ñëpp ko bokk loolu daañ ñëw ci kanam tuuti kenn moomu ko ñun ñëpp dañu cee war a bokk di ci jariñoo kon war kenn waru koo jéem a ci benn façon ci façon aakimoo yi moo tax bu ñu jaxasee nag diggante li ñëpp bokk ak li kenn moom ci la ñuy dégg li ñuy wax jalgate àq alal joo moomul wala alal joo xam ne nii ñëpp ko bokk bu ñu la joxoon misaal ne la oto ci misaal bi oto bi nga xam ne nii yaa ko jënd sa xaalis moomal ko sa bopp liggéey sa xaalis jënd sa oto oto boobee tey boo ko saax-saaxee woon ba mu yàqu say loxo tam kenn mën na la caa bañ wax dara ndax yoonu kenn néew ci yaa ko moom yaa ko jënd waaye oto bi nga xam ne dañ koo jënd ci alal réew mi mu war di jëlee nit ñi ci barab di leen yóbbu ci barab te ñëpp am àq dugg ci ak façon yañ cay duggee oto yooyu ku ko yàq wala nga gàllankoor ko tooñ nga sa bopp waaye tooñ nga ñi nga xam ñoom nga seqal réew mi ndax alal ñëpp bokk la nga gàllankoor ko wala nga yàq ko tooñ bi ngay tooñ sa bopp nag mooy yow sa bopp ëllëg danga nga ko soxlawoo te mën naa am mu jafe ci yow bu boobaa kon oto boobu moom ñun ñëpp dañ koo bokk kon sàmm gi itam ñun ñëpp la war a képp koo yàqit mooy jalgate nga àq yoo xam ne nii ñëpp ko bokk bu dee oto boo xam ne keneen a ko jënd nit ne yow moo ko jënd ci alalam loola moom boo ko yàqee bu la baalul da nga koy fay wala boog ngeen dem ci yoon loola mooy li ab solo kon nit ki war naa xàmmee lim moom nga xam ne séq ko kenn ak li nga xam ne da koo séq nit ñi bokk ak ñoom ak li nga xam ne ni keneen da koo moom yoonam newu ca loolu nag xàmmee ko baax na lool moo tax kilifa gu mag daana ko fàttalee lu bari muy si Abdou Lahad ci ay discours daana wax wax ju mel noonu ñu xàmmee nit war naa xàmmee lim moom ak liñ ko boole ak li nga xam ne nii yoonam newu ca waaye nag suñu borom ni ñu mooñe doomu aadama mooy bëgg sa bopp wala boog dañoo égoïsme wala ananiya mooy bopp sa bopp gi nga xam ne nii dafa mel ne yàlla daf ñu ko mooñaale ñun ñëpp ñuy judd dañ koy judduwaale xëy na tarbiya bu ñuy def ci ñun ak defar gu ñuy def ci ñun mooy tax ñenn ñi dem ba loolu dootu feeñ waaye bu koy judd ñun ñëpp dañ koy judduwaale léegi nag ñàkk ñàkk defar nit ñi nag moo tax yëg-yëg boobu nga xam ne ni bopp sa bopp dañ koy judduwaale comme ni ko bàyyi may judduwaale day màgg ci ñu baree bare ci nit ñi bu ko defee ñu dem ba jalgate alal ji ñëpp bokk mel ne daa nekk loo xam ne nii lu ñëpp miin la lu naturel la te fekk na booba nag mooy tooñ gi dëgg-dëgg àgg nañ ci max maanaa mi nga xam ne nii moom la alal ji ñu bokk am ak solo si nga xam am na ko ci dundinu askan wi ñu baree bari bàyyeetuñ ci xel te xëy na bàyyiwuñ xel ci ne alal ji ñëpp bokk wala bokk moomeel gi ñëpp bokk mooy buum gi nga xam ne nii mooy takk mbooloo mi maanaam ku nekk lay tax nga xam ne bokk nga ci mbooloo mi mooy la mbooloo mépp mën a jëfandikoo nga am ak ci di ko jëfandikoo wala bokk ñu am luñ bokk ñun ñëpp di ko jëfandikoo ndoo ci benn saa si wala benn jamono ji loolu dafay tegtale ne mooy buum gi nga xam moo ñuy lënkale ku nekkit nag kem na ngay gise sa bopp ci alal jooji noonu ngay gise sa bopp ci bokk gi nga bokk ci biir mbooloo mi fii ci sunum réew di Sénégal jamono yi weesu dégg nañ fi ay coow yu baree bari dégg nañ fi ay tuuma yu baree bari dégg nañ fi ay nit ñun ne dañoo def lu wuuteeg di réew mi bëgg wala boog dañoo jalgati àq réew mi wala boog dañoo salfaañe àq ji ñëpp bokk muy lu yéeme xëy na dégg gi noonu amul solo waaye nag fañ koy dégg mu fay xewe kuy tiit loolu moo la war a tiit loolu ndax nag am na wala amul loolu moom beneen affaire la waaye mu jar wax gi ñu koy wax rek ak dégg ñu koy dégg rek dafa am lu muy def ci yëg-yëgu doomu aadama boo xam ne nii sa yëg-yëg mi ngi dund ndax suñu demee ba jàpp ne ñi nga xam ne nii jàppoon nañ ne ñoom bu dee aar moomeelu réew mi bu dee aar ak réew mi ak état bi ñoom kenn waru leen caa jiitu kenn waru leen caa ëpp cër bu ñu demee bay dégg wax ju mel noonu seen biir dafay tegtale ne crise am na suñu biir jafe-jafe bu mag ñu ngi koy dund kon dafay tegtale ne am na lu baree bari lu ñu war a xoolaat suñuy doxalin ak suñuy mbir ndax bu ñuy wax alal ñëpp bokk réew mi mooy ci jiitu moomeel bi ñëpp bokk mooy état état mooy ci jiitu état kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax dañu wax ne li ko sos mooy contrat social contrat social mooy ku nekk danga cof say àq ak sa yelleef ñun ñëpp ñu boole ko jox ko kenn wala ñenn ne leen saytul leen suñu mbir kon nag ku nekk am nga loo am ci réew mi lépp ñëpp nag lu ne ku nekk da cay nekk kon état mooy li ñëpp bokk moomeel gi ñëpp bokk mooy état moo ci jiitu moo tax état boobu kenn amul sañ-sañu salfaañu loo am am naqar loo am am lu la metti ponk yi nga xam moo ngank état maanaam tànk yi nga xam ne ci la état di taxaw kenn amul sañ-sañu laal ko mooy lu mel ne charte réew mi lu mel ne drapeau réew mi lu mel ne devise réew mooy bàkku réew mi yooyu yëpp ak yeneen yi nga xam ne nii mooy loi ak règlement yi nga xam moo tënk réew mi yooye lu metti metti nit amul sañ-sañu xotti ko ndax boo ko xottee mooy li ñëpp bokk tas nga ko te mooy bi te état bi moomee ñëpp la xëy na foofu la ñu gisee ne kon waxtaane tomb bi ni ko si oustaz waxe léegi dana am solo ci buntu fàttalente ba ku nekk xam naka ngay jëflanteeg moomeel gi ñëpp bokk ndax foog ñu koy foye gi ñu koy foye ci jamono yi moom jéggi na dayoo ak façon moomeel gu mënti doon gis nañ nañ koy foyee jéggi na dayo ngir mu gën a leer nag danañ wax benn tënk ci buñ nee moomeel gi ñëpp bokk lu muy tekk dëgg-dëgg danañ ci joxe itam ay tegtal ngir kum leetoon sa bopp xëy na nga xam ne lii bu ñu wax moomeel gi ñëpp bokk yu mel nii lañ ci jublu danañ wax sabab yi nga xam ne ni mooy tax nit ñi nit ñi di sàggane li ñëpp bokk loolu dañ ci tudd ay yennat danañ tudd tam yennat ci melokaan yi nga xam ne nii képp ku koy def jàppal na yaa ngi yàq moomeel gi ñëpp bokk am na melokaan yoo xam képp koo xam yaa ngi koy doxee rek ku nekk nag mën nga caa xool sa bopp képp koy doxee jàppal ne kon yaa ngi yàq moomeel gi ñëpp bokk su ko defee nag suñ noppee itam dañ tënk tuuti ci taxawaayu lislaam nga xam mooy suñu diine naka la soññee ak ban taxawaay la am ci alal ji nga xam ne nii wala boog moomeel gi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk bu ko defee door a daaneel kàddu yi bi ñu gëstoo ci moom talakaatul amma mooy li ñuy wax bien commun wala boog bien public wala li nga xam ne alal ji wala boog moomeel gi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk dañu wax ne mooy jumtukaay wala matukaay yi ñu jël te état nguur di ko saytul boppam te njariñ lay dellusi ci mboolem nit ñi dëkk ci réew mi ak ñi nga xam sax duñu ay citoyen waaye dañu fay tukki ñëw fi nekk suñu biir ñu ne kon melok yëf yi nga xam ne nii état moo koy saytul boppam te la cay génne wala boog la muy jariñ di dellu ci mbooleem askan wi moo xam ñi fi dëkk ci saano ci réew mi la wala ñi nga xam dañ fee wàll si dañ ne loola mooy baatu moom talakaatul ama mooy li ñëpp bokk wala boog mooy li nga xam ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk am àq ci jariñoo ko waaye itam ku nekk am responsabilité ci sàmm ko ci gën jaarafet sàmm buñ ci joxee misaal ñu ne la réew moo dem am na fa loo xam ñépp ñoo ko bokk ñu ne la mbedd yi yoon yi ñuy jaar loolu alal la joo xam ne nii ñépp ñoo ko bokk te dañ ñëwaat ci kanam barab jaamukaay yàlla yi barab la yoo xam ne nii ñépp ñoo ko bokk moo tax boo gi ñu naan la jàkk kenn du ko tuddee jiw dañ naan jàkk yàlla moo ko moom te moom lañ koy delloon kon barabi jaamukaay yàlla yi moo xam jàkkale la wala yeneen barab yi ñuy def yu mel noonu moom it dañ koy dugal ci biir moomeel gi ñëpp bokk barab yi nga xam dañ ko def muy pénc wala boog barab yi féexlukaay jardin public wala yu mel noonu ñu defar ko ba mu baax nga xam ne ku bëgg a féexlu mën a ñëw toog fa féexlu yàgg sa njaboot loolu mën nañ ko dugal ci biir li ñëpp bokk université publique yi maanaam jàngukaay yu mag yi nga xam ne nii ci alalu réew mi lañ ko tabax doomi réew mi di ci jàng loolu itam dañ koy dugal ci biir moomeel gi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk am na lu ñu tudd école publique école publique mooy école yi nga xam ne ni primaire mooy secondaire nguur gi tabax ko ci alalu réew mi doomi réew mi dafa jàng loolu dañ koy dugal ci biir moomeel gi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk yenn service yi nga xam ne nii gouvernement bi moo koy saytu te nit ñi di fa defan di fa soxla ñu wut ay nit tudde leen ay fonctionnaire di leen fay ngir ñu méngoo liggéey booba barab yooyu dañ koy dugal ci biir moomeel gi ñëpp bokk am na barab yoo xam ne nii ay service public la moom it ñëpp dañ koy bokk lu mel ne boo demoon poste tey wala nga dem Sénélec wala nga dem société nationale yi nga xam ne nii alal réew mi lañ ko defee te te mu war a jariñ askan wi loolu dañ koy dugal ci biir alal yi nga xam ñëpp ñoo ko bokk yeneen yi nga xam ay service la ñuy joxe lu mel ne hôpitaux yi lu mel ne barab yi mel nga xam ne nii da ngay dem ñu defal wala service sociaux yi yi ñuy def ci réew mi loolu dañu jàpp ne ci alal ji ñëpp bokk ci la bokk kon yooyu ak yu mel noonu moom la ñuy tuddee alal ji ñëpp bokk te taxawal ko ci alalum réew mi doomi réew mi di ko saytu te ñëpp war koo bokk jariñoo noonu mu amee nag ci réew mu nekk état bu nekk noonu la amee loo xam ne àddina bépp dañ koo bokk moom it ñu ñëpp ñu war a bokk di ko sàmm lu mel ne géej yi géej yi mag yi ngay gis nii maanaam boo doxee nangami kilomètre sa frontière rek da ngay daal gis loo xam ne nii ndox moo xam ne dañuy wax almiyahu dawliya mooy eau lañ koy tuddee mooy ndox yi nga xam ne nii ñëpp a ko bokk am na ci géej yi am na ci océan yi noonu la ci amee ngelaw lii ngelaw lii nga gis ñu koy noyyi ñëpp ko bokk boo gisee ñu koy nag mooy ngelaw li ñëpp a bokk kenn amul sañ-sañu yàq ko te ngelaw li mu bokk na ci li ñu gën a yàq ci àdduna bi fi nekk ngelaw li ci la bokk ba muy jur ay wéradi di jur ay jafe-jafe yu baree bari ci àdduna bi gis ngeen sax ñu koy waxtaanee. environnement bi mooy alam ji ñu wër ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn amul sañ-sañu di ko yàq ba kenn dootu ko mën a jariñoo yooyu mën nañu jàpp ne kon moomeel la goo xam ne ni moom waxuñu réew waaye àddina bépp ñoo ko bokk te kenn wër koo yàq xëy na daañu ci ñëwaat ci kanam tuuti moomeel gi ñëpp bokk nag amuk am soloom ñi ngi koy xàmme ci ne mooy nattukaay bi ñuy natte population bu mën di doon xeet wu mën di doon boo bëggee natt seen yëg-yëg fam la toll seen mentalité fan la toll seen conscience fan la toll mën nga koo natt ci yitte ji ñuy jox alal ji ñëpp bokk ndax ña ngi koy sàmm wala sàmmuñu ko dañ ko sàggane wala sàgganewuñ ko moo tax dañ ciy natt population boo demee ci réew yi nga xam ne ni ñoom dox nañu ay jéego ci fànn googu dangay gis ne alal ji ñëpp bokk kenn du ko jalgati ñu bari dañ koy sàmm wala boog boo koy boo gisee ko ko jalgati bala nga ko gisaat dana yàgg lool mu wuute ñun ak ni ñuy dunde ci sunum réew fii daanaka da ngay tabax kenn day tabax fukk di yàq lu ñu defar tey ci dëkk bi wala ci réew mi ñëpp bokk ko manque de manque de conscience gi ne ci nit ñi wala ba conscience mort bi ne ci nit ñi day tax nga gis boo toogee diir bu yàgg dem gis fekk ñu yàq loolu lépp ñu war a tàmbaliwaat nga xam day mel na ñun ci tàmbali guddul jeex ci la ñuy nekk loolu nag réew mu koy doxee pour nga avancé moom dana xaw a jafe moo tax fexe ba nit ñi xam solo gi nga xam ne nii alal ñëpp bokk am na ko solo moo tax dañ leen cee war a tàmm teel a tàggat teel koo jëmbat ci ñoom mu tàmbalee ci xale bi buy nekk parental xale bu tuuti nekk parental war nga ko teel a xamal ne ko am nga loo moom ak loo yàgg nit ñi ñee ko bokk loola ci ni ngay doxalante doxalante moom ci kër gi bu xéewul jotee wala yu mel noonu wala ay yéreem wala kër gi li fi nekk war naa mën a teel a xam ne am na lum ci moom ak loo xam ne ni moom da koo bokk ak ñeneen ñu war koo dugal nag ci fondement yi nga xam bu ñuy teg suñu système bi ñu yare suñu nosin ci wàllu yar ak ci wàllu socialisation mooy génne nit ki ci bàyyi ma dugal ko ci nite loola war nañ caa bàyyi xel bu baax nit ñi màggaale yëg-yëgu ne alal ji ñëpp bokk sàmm gi ñu ñëpp la war te kenn waru koo jalgati ngir nag loolu ñu mën koo jëmbat ci xale yi yar leen ci ñu màgg ci am na ay mbir yoo xam ne nii war nañ koo bàyyi xel ba tax na kon képp koo xam da ngay jàngale dangaa yor daara dangaa yor école dangaa yor kër dangaa jiiteem réew war ngaa fexe ba yii ñu bëgg a tudd nga def ko ci nit ñi bu ko defee nit ñi dañ màggaale yëg-yëg ni am yëg-yëg ci ne alal bi ñëpp bokk war nañ koo sàmm li ñu war a njëkk a mooy fexe ba nit ñi am yëg-yëgu pas-pas mën nga koo tuddee diine maanaam pas-pas ñu fexe ba mu doon pas-pas ci nit ñi maanaam ñu def ci nit ñi pas-pasu gëm ne suñu boroom dañoo togg ñuy sàmm alal ñëpp bokk bu fekkee fexe nañ ba nekk ngëm téef wala ba ngëm wala ñu fexe ba mu nekk pas-pas ci nit ñi mooy tax nit ki gëm ne am na ku koy contrôler ku koy fuglu koo xam ne nii moom dara du ko raw saa su nekk mi ngi koy gis te mooy yàlla pas-pas boobu bu ñu fexee ba mu ne ci nit ñi jëmbat ko ci nit ñi ñu màggaale ko dana tax képp ku nar a yàq wala nga nar a jalgate wala nga nar a sàcc loo xam ne ni ñëpp ko bokk da nga bàyyi xel ci ne sunu borom mi ngi lay tiim te mi ngi lay gis donte caméra yi gisuñ la donte police taxawul waaye gëm nga ne am na ku loo xam ne nii moo raw ñun ñëpp te moom dara du ko ëmp ci yow loola kum ne ci yow doo jalgate ak mu wuteeg lool ki nga xam ne ni dañ koo gëmloo ni ko policier moo lay saytu wala caméra bi mooy moo lay saytu yooyu nga mucc ci lu yombul na lool lool lool moo tax bu fekkee nit ñi dañu nga gëmloo ne leen rek ne leen maanaam doomu aadama ne yow daal moo lay saytu kooka pour mu jalgati dana yomb ci moom lool moo tax nga gis suñu état yi dañuy jël ay milliards yu baree bari di ko dépenser ci corps de contrôle yi di ko dépenser ci maanaam ñiy aar fos maanaam nit ñu yor kaaraange réew mi di ko dépense jumtukaay yu baree bari ngir mën a saytu nit ñi te day mel ne saa yu ñu xëyee jalgati moom day gën di yàqu kon nit ne moom nit dafa gëmul ne nit ne moom mën na koo contrôler moo tax ñu fexe ba nit ñi gëm ne suñu borom moo leen di contrôler boppam te mi ngi leen di gis loolu dana tax nit ñi bàyyi xel alal yi ñëpp bokk ci yëg-yëg boobu tam ci lañuy mën a màggale ci biir nit ki mu xam mujj gi koy xaaj mujj gi koy xaar résultat yi nga xam mën naa juddoo ci jalgati gi muy jalgati alali mbooloo mi nga xam mën na ko ca fekk fii ci àddina waaye itam àllaaxira ma ngi koy xaar ndax ki jalgati alali mbooloo mi fii ci àdduna mënees na koo jàpp tëj ko toroxal ko teg ko ay métit te fekk na moom boo ko def te ëllëg nag yowmal xiyaam sunu borom da koy da koy da koy leeralaat ci kanam sunu borom ñu teg ko lañ ko war a kon jéego bi njëkk mooy ñu fexe ba mu nekk pas-pas ci nit ñi maanaam jëmbat ko mu nekk ngëm-ngëm ci nit ñi ñu màggaale ko ñu leeral leen tam alal ñëpp bokk ban solo la am ci biir askan fi mu ne tey misaal boo bëggoon a gis sa bopp dangay taxaw ci ab seetu boo taxaw seet seetu dalay wan sa bopp waaye alal ñëpp bokk nag mooy seetu bi lay wan sa bopp ci biir réew mi maanaam seetu bi lay wan sa bopp ci réew mi mooy alal ñëpp bokk kon alal ñëpp bokk ci nga mën a gisee ne ndax yow bokk nga ci réew mi wala bokkoo ci ndax am nga sañ-sañu jëfandikoo ko wala amoo sañ-sañu jëfandikoo ko loola boo ko xamee ci ngay mën a gise sa bopp ci biir réew mi xëy na nag bu ñu fexoon nag ba nit ñi ku nekk di gis sa bopp ci réew mi ci alal ji ñëpp bokk nga di ko ca jaare dana tax kenn dootu ko faye kenn dootu ko caaxaay bokk na ci li ñu ci dimbalitam itam te ñu koo def ci nit ñi yar mooy ñu conscientiser nit ñi yee leen yee li ëpp ci nit ñi ba ñu xam ne yàq njariñul mbooloo mi bàkkaar la bu mag a mag boo xam ne nii boo ko defee séq ko benn nit waaye mbooloom jamono mbooloom àdduna bi wala boog mbooloom mi nga séqal réew mi ñoom nga ko séqal defe naa nag bàkkaar boo xam ne nii mbooloo nga ko séqal moo gën a métti bàkkaar boo xam kenn da nga ko séqal nga xam ne tey boo ko doon baalu tey mbooloo méppay taxaw baal la ko wala bàkkaar bi la wàcc loolu defe naa ku ko xam da nga xam ne li ñëpp bokkoon sàmm gi dañ la war te it nga xam ne yow alal ji nga moom sax bu dee ci lislaam dañ naan la amoo sañ ñu yàq ko alal ji nga moom maanaam yàq gi israaf boo demee ba ci daraja yàq da ngay daal def bàkkaar kon nag gannaaw bu alal ji nga moom mooy boo ci yàqee am nga njuumte waxuma laak nag alal ji nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk kon defe naa loolu tam bu ñu ci yeewoon nit ñi dana ñu may ñu mën gën a mën a sàmm alal ji ñëpp bokk yée ci nit ñi xamal leen solo sim am ba noppi nag war nanoo teg ay luwaa teg ay nos ay tëralin ak ki luwaa yoo xam ne ni day freiné képp koo xam ne nii sa xel nekk na ci jalgati alal ji mbooloo mi bokk mooy ñu teg ak luwaa yu sévère yu dëgër yoo xam ne nii képp koo xam ne nii sa xel may na la nga war a jalgati li ñëpp bokk ñu teg la ko mu doon ay daan yoo xam dana mett lool lool bu ko defee ñeneen ñi lay gis dootuñ ko ñeme ndax gis nañ ne sanction sanction mooy nga teg nit ki ay daan léeg-léeg mu nekk sanction boo xam ne nii bu positif lay doon neexal wala yu mel noonu waaye sanction bi nga xam négatif la nga xam dañ lay duma wala dañ lay tëj wala dañ lay teg lu metti loolu léeg-léegi day am njariñ lool ci biir mbooloo nit ñi am na ñoo xam ne nii boo leen xemmeem loo ñu jaar ci yoon waaye am na ñoo xam da nga leen di tiitloo ñu door nangoo jaar ci yoon moo tax léeg-léegi force doole mën a wëyal yoon woo xam ne nii waxtaan rek du ko mën a wéyal moo tax teg ay daan yu metti yoo xam dañ koy teg képp koo xam ne nii jalgati nga àq wala boog alal ji ñëpp bokk nga jalgati ko ñu war la koo teg muy doon bind boo xam ne nii keneen koo ko gis ne yow dana ko moytu bu ñu tegee luwaay yooyu ba noppi tam nag nu fexe ba lépp loo xam ne nii xeetu ràññet la la discrimination la ci luwaay yooyu li ñu ko gën a mën a sori mooy gën maanaam mooy bu appliqué loi bi jotee ñu appliqué ko ci kaw ñëpp bañ ci am xejj ak seet moo tax ñu nekkoon kon liñ ciy musal bokk na ci koo manti doon ak tolluwaay boo mënti am ci biir mbooloo mi ak wàccuwaay bu la nit ñi mënti jox bis boo jalgatee ak alali mbooloo mi dañu lay teg daan yi nga xam ne moom lañu war a teg képp ko def ñu def la ko te kenn du ca bàyyi xel sa melokaan woowu loolu defe naa ne bokk na ci li ñu mën a dimbale ci nit ñi di bàyyi xel lu mel noonu ndax léeg-léegi nag bu fekkente ne ñi jiite nekk ñu leen di xool ñooy jalgati kon ñi ci gannaaw duñ mat a wax moo tax dañuy wax ne boo demee ci kër fekk boroom kër gay tëgg di tëgg ka tàccu nee na boo gisee xale yi yëngal seen yaram bu mu la bett loolu léeg-léeg dafay am kon ñi ci kaw bu ñu leen yemalee ñi ci suuf ci luwaay ak règlement yi nga xam moo leen tënk dana tax ñi ci suuf danañ xool ñi ci kaw li ñu leen mën a dal ba tax ñoom dañ moytu lu baree bari kayit bi dama liir ci benn barab ñu bind fa ab xabaar ñu ne présidente réewum Pérou péru ci réew Amérique latine yi la bokk ka ko jiite jigéen la ñu ne fan yi bërki démb police dañoo dem perquisitionné maanaam dañoo dem ñaaj këram force dajji bunt ba dugg fa te mooy njiitum réew mi ñu ne procureur moo leen jox ndigal ndax dafa am information ne présidente bi am na ay montre yu yu seer montre Rolex Rolex maanaam xeetu montre la yu seer yu gànjaru loolu ñu ne da cee am yu baree bari yoo xam ne daf ko am te déclaré wu ko kon ñu war a xam ba xam montre yooyu nu mu demee nga gis ne moom njiitum réew la ndax nag loolaa tax ñu def ko la leen waaye da acte la boo xam ne ni maanaam war nañ cee jànge lu baree bari ñu gëm ne nekk ci kanamu mbooloo mi ñu jox la cër tekkiwul ne war ngaa am sañ-sañ yow fi nit ñiy jaar doo fa jaar ba mën a jalgati ak ak alal ji nga xam ñëpp ñoo ko bokk moo tax suñ demee ba gis ne am na ñoo xam dañoo féete kaw loi nga xam lu ñu mën def dara du leen ci fekk nga sàcc ay milliards te mujjul fenn nit ki sàcc million ñu sonal ko wuute googu am ci biir loi li fekk mi nga am jalgate ak alal ji ñëpp bokk du fi jóg ndax boobaa ñi nga xam ne ni dañoo néew doole ñu gis ne ñoom boo sàccee téeméer ñu teg la daan yu métti kee sàcc milliards ñu ñu tef ñu ne ko da ngaa yeewu da ngaa muus bu yàggee li muy jur mooy ñi féete suuf danañ mer te suñ meree nag seen mer ñi ngi koy sippi alal ji ñëpp bokk loolu mooy xew suñu réew yi nga gis ak yeneen réew sax dafay am ay nit ñu mer mere mere doxalinu nguur gi tax ñu jël lépp lu ñu romb yàqte ko bu dee banque la ñu yàq bu dee alal joo ñëpp ko bokk lépp lu ñu romb yàqate ko la ko jur mooy ne dañoo gis ne ñi ci kaw ni ñuy doxee jaarul yoon ba noppi ñoom mënuñ ca dara ñu ne kon nag nañ ko far yàq ñu ñëpp ñu bokk ci yem kon yamale nit ñi ci wàllu atte yi dana tax nit ñi di bàyyi xel alal ji ñëpp bokk waaye itam ñu fexe ba ñun ñëpp ñu def ko muy suñu yitte mooy koo romb yow en tant que citoyen képp koo romb muy jalgate alal ji ñëpp bokk nga taxaw waxtaan ak moom ci tekk ak teey bu ko ku nekk ñu defee muy sa yitte rek yeetente gi mën naa am solo lool waaye fii da ngay gis koo xam ne da ngay romb nit mu yàq mu wóor la ni kii li muy yàq alal la joo xam ne ñëpp ko bokk waaye comme yow xëy na gis ngeen du sa alal rek jàpp nga ne waroo caa wax te moo ne waroon ngaa taxaw yee ko xamal ko ne ko lii ak li ngay def ak kat wax dëgg yàlla jaaduwul ci waxtaan ci teg ak tey su fekkente ne mën nga ko ñu amit corps de yoo xam ne yow su fekkente ne waxtaan nga te moom taxul mu jubbantiku nga mën koo boole jokkook ñooñu ñu daal di ñëw mën koo teg ci yoon loolu dana tax ñu koy sàmmanteel moo tax yéen nit ñi bañ xam ne infrastructure yi ñu defar te mbooloo mi bokk ko ñun ñëpp dañ koo war di jariñoo sàmm ko ba ba ëllëgee ñu mën koo jébbal suñuy jaboot ñoom it ñu mën koo jariñoo bu ko defee ëllëg ci ak yokkute la ñu jural bokk na ci li ñu mën a dimbali mooy ñu fexe ba jëf ju coobarewu ñu gën koo tasaare ci biir mbooloo yi ci biir askan wi ñu fexe ba gëmloo nit ñi ne mën na ni coobarewu di def loo xam day sàmm alal ji ñëpp bokk ci misaal am nañuy kanaal kanaal yoo xam ne nii dañ ne ndoxam taw mi lañ ciy def ñu gis ne léeg-léeg bu naru jotee suuf da ciy dugg day sëkk ba fees del wala yu mel noonu wala ay mbalit dugg ci ñu ne dañuy def dañuy def opération set setal mbooloo jóg topp canal yooyu di ko ubbi di ko sekkar ci loolu liggéey la boo xam ne nii nit ñi dañuy coobaru di ko def te muy lu am solo ci yëg-yëg boobu ndax li nga bokk di ko defar bokk sàmm ko dana la yomb moo tax bu ñu bokkee defarandoo bokk sàmmandoo danañ yomb waaye lépp lu ñu la génnee ne la sa yoon néew ci maanaam yow sàmm gam mën nga saa bañ a dugal sa yoon moo tax fexe ba organiser nit ñi ba ñuy bokk ci yëngu-yëngu yu mel noonu dana tax ñu am conscience ci yëg-yëg bi alal ji nga xam ne ni ñun ñëpp ñoo ko bokk te danañu may entretien bi mu laaj ñu koy mën di def te xëy na coono bi ñu waroon togg duñu ko togg mën naa am sax bu ñu ko mënoon sax ñuy laaj loo xam dañ naan la fii kat dañ koy war a def benn kanaan boo xam ne nii maanaam ndox mee ko tax a jóg ñu ne nag bëgg nañ nag ku nekk loo ci mën a barkeeloo nga barkeeloo ko ci misaal ndax nit lépp lu mu def alalam rek da cay gis boppam bu ko defee yëg-yëg boobu danañu ko may boo gisee lu mel ne Éthiopie bi ñuy tabax seen barrage bi barrage bu mag bi bu ñu koy tabax bokk na ci yoon wi ñu jëfandikoon mooy di laaj ay ket di laaj population yi ku nekk loo ci mën a jàppe ci liggéey bi nga def donte état bi koy defar waaye nga yëg ne dugal nga sa ci yëf yi dana tax ëllëg nga yëg ne ñi ko war a sàmm ci laa bokk waaye dana tax ëllëg tam nga mën cee gis sa bopp ndax xam nga ne barrage bu indi coow lu baree bari waaye dana tax population bu ñu bokkee ci tabax gi dana tax képp ku ci bëgg a dal ñoom ñëpp dañ nangoo àndandoo di ko défendre loolu doxalin wu am solo la woo xam ne nii war nañ koo mën a tasaare ci biir askan wi mooy ku nekk nga jël sës tuut def ko ci jumtukaay yi nga xam ñëpp koy jariñoo dana tax boo koy jariñoo sa xel dana sedd sa xel dana dal waaye itam dana tax sàmm gi nga mën caa bokk moo tax fii ci fu mel ne Touba ak dëkk yu mel noonu yii ngi fay gis di ay initiative yu mat a encouragé muy mbooloo yi nga xam ne ñu ne ci koñ yi ne fi daayira alxames bu jot nga gis ñu war koñ yi bale ko ba mu set defar ko toppatoo ko ak ngi yenn xale yi nga gis ñu def association léegi nga leen gis ñuy ñuy sekkar ci canal yu mel noonu loolu dafa nekk jubluwaay boo xam ne ni dañ ko war a fésal ba ñëpp gis ko muy média bi muy ñëpp war nañ fay dem di leen filmer di waxtaan ak ñoom di ko tas ba ñëpp gis ko ndax yëg-yëg la tasaaroo rek sàmm alal ñëpp bokk danañu yomb fan yi ñu ngi dégg lu mel noonu ci niveau national ñu ne ay nit yu jóg ne dañoo bëgg a bale réew mi ba mu set ci ci leneen xëy na loolu leneen waaye loolu yëpp ay maanaam initiative la yoo xam ne nii war nañ koo gën a fésal gën koo encourager ba nit ñi gën koo xam ndax loolu mooy tax sàmm gi gën a yomb ci ñun bokk na ci li ñuy dimbali itam ba nit ñi nangoo sàmm alal ñëpp bokk mooy ñu fexe ba niñ koy séddee leen a jaar yoon ci misaal tey ñun bu ñu ñëwoon tey ci dëkk bi sell bi di Touba ñu ne dañ fee bëgg a def ay kanaan dañ fay bëgg a def ay égout dañ fay bëgg a def nangam ak nangam dañ fay def yu baree bari jumtukaay yu baree bari yoo xam ne nit ñi dañ koy jariñoo waaye lépp ñu jël ko concentré ko ci benn barab maanaam aneer dëkk moom duñu gis dara loolu moom moo tax ñuy wax séddalin woowu day tax ñoom ñi aneeru dëkk bi dañu ci gis seen bopp loolu damay joxe misaal ci Touba rek waaye réew mépp lay demee maanaam tey ñu li nga xam ne nii jumtukaay la yoo xam ñëpp a koy soxla ñu fexe ba bu ñu koy def di ko tasaare maanaam tey bu ñu defalee fii tey bu ëllëgee ñu def fële wala ñu def fële donte ñëpp duñ matalandoo benn yoon bu ko defee at mu jot ñu def benn bu ko defee ku nekk dañ ciy gis sa bopp waaye boo gisee tey ji dëkkee ci banlieue yi ñaare fipp bu amee foofu lay départ ndax da ngay dem ci centre ville bi maanaam ci digg dëkk bi fekk lépp matt yow nga dem ci aneer dëkk bi doo fekk dara fekk mu lëndëm këris dara amu fa loolu ñooñu fipp da leen di yomb loolu réew bari da ngay gis fépp bu amee mi ngi déparé ci banlieue bi maanaam ñooy xëy xëy def ndiiraan ñoom nag lu ñu romb yàq ko ndax mer la ñuy demee ak maanaam yëg-yëg bu xër bu ëpp la ñuy demee bu ko defee kenn du leen mën a téye nag loolu nag la koy waral mooy ñàkk gu ñuy ñàkk séddale maanaam bien comme yooyu ñu ñàkk koo séddale séddale ñu maanaam ñaare tam réew moo gis ñu ne fépp dafaa am rébellion dafaa am boo laajtee woon boo defoon gëstu la ngay njëkk dégg mooy dañ naan la ñun kat suñu gox bi gars yi dañ koo fàtte dara dafay amut defalu ñu dara réew mi defalu ñu dara gisuñ suñu bopp ci réew mi moo tax ñu rébellé wu daal di commencé fipp indi ay jafe-jafe ci biir yooyu kon fexe ba moomeel gi ñëpp bokk ñu séddale ko séddalin wu jaar yoon ba ku nekk man cee gis boppam dana tax sàmm gi gën a yomb kon loolu moom ñun ñëpp ko war a bàyyi xel surtout ñi nga xam dañuy ay xale dañoo ne seen loxo ñu leen di defar moo xam dañuy jàngale wala dañuy yu noonu ñu war koo dugal ci biir système bi ci njàngale mi yaraale ci xale yi ba ñu màggaale mu am nag sabab yoo xam ne nii dana tax la léegi nit ñi di sàggane li ñëpp bokk loolu it mën nañ caa tudd yennat bi ci jiitu mooy maanaam mentalité bu faible maanaam niveau xel xalaat tolluwaay ci xel xalaat bu wàcc bu suufee lool ñàkk am culture bu mag dana ko jural nit ñi nit bu amul yëg-yëg bu mag bu yaatu mooy waral moom boppam dong lay gis nit nag buy gis boppam moom dong maanaam ñaare ngir mu gis li ñëpp bokk dana jafe moo tax léeg-léeg nga dégg ko naan la alal ji alal ñëpp la bu ñu la ko joxee lekkal déedéet kooku ma lay ma ngi lay dugal loo xam ne nii njuumte lu mag a mag la ndax bu fekkente ne daf ne alal ñëpp a ko bokk la ko joxee lekkal déedéet ñëpp a ko bokk waaye bu ñu ko bëggee jariñoo daa am yoon wu ñu ko war a jariñoo ku nekk am nga yoon woo war a jaar ba man koo jariñoo kon nag jàppal ne ki la bëgg a gëmloo ne la alal jigéen ñépp a ko bokk ku la ko jox lekkal lam lay wax njuumte la ndax ma lay dugal ci nga nekk ndey sàcc ndax kiy sàcc di indi moom di la jox kooku ab sàcc la waaye yow mi nga xam bu sàccee jox la nga lekk yow yaay ndey sàcc sàcc ak ndey nag ñoo bokk at kon alal ñëpp bokk ku la bëgg a gëmloo ku la ko jox lekkal jàppal ne njuumte loolu koo gis mu koy jàngale rek mooy xelam ni mu war a màcc dëgg-dëgg màcc léeg-léeg ku ne dégg ne mbedd mi mbeddum buur la ba tax jàpp nga lu la neex war nga ko fay mën a def yooyu it ku la koy jàngale mi ngi lay jàngal njàngale mu juumte mu mu juunu kon mbedd mi dëgg la ñëpp a ko bokk waaye nag ku nekk da ngaa am noo ko war a jëfandikoo ku ko jëfandikoo woon nag nga war a jëfandikoo rek yaa ngi jalgati alal ji ñëpp bokk kon yooyu yu baree bari la suñuy waxin ñu koy wax ñu koy dégg loolu dafay tegtale ne sunu yëg-yëg sunu xel sunu xalaat fi mu toll ci wàllu tolluwaay xaw naa suufee ci fànn boobu ci ñu bari ci nit ñi kon yëg-yëg boobu bu manqué ci nit ñi dana tax ñuy sàggane alal ji ñépp bokk li ma waxoon léegi itam day ñëwaat muy ananiya muy égoïsme mooy nit ko koo xam boppam rek moo ko ñor kooku du xalaat ci maanaam maas gi war a ñëw ëllëg génération bi ñëw ëllëg yoonam newu ci moom daal tayam na jag loolu ñaare ku koy def mooy koo xam ne nii sa yëg-yëg boobu sa mbëggu bopp googu dañ koo defarut ba mu baax mooy waral nga gis moom du xalaat kenn boppam rek lay xalaat te nag ku dul xalaat liy ñëw ëllëg danga yàq lu baree bari loolu moom gis nañ lu baree bari loo xam ne nii gis nañ ne at yu néew ci kanam lu baree bari dana metti lool te la ko waral mooy ñi doon dund jamono ji xëy na bàyyiwuñu woon xel ñi ñëw ëllëg ba tax yu baree bari bàyyiwuñu leen ci xel tey jëlal rek fi ñu gën a jege ñun maanaam ci lu mel ni Touba wala yooyu wala dëkk yi nga gis dëkk boo xam ne nii dañ koy dëkk kër ci kaw kër maanaam réservé ne woon yëpp ñu dagg ko yenn yi dañ koo jaay ñu xam ñu ko def dëkke ko ba mu jeex léegi tey jàppal ne ay xale ñi ngi ñëw ci ëllëg war a am daa école yu ñu jànge daara yu ñu ñu war a am poste maanaam fajukaay war a am leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñooñu boobaa fu ñu koy def kon yow mi nga xam dangaa jaay suuf si jamono ji ñu toll nii faje ko see soxla mooy sa gis-gis gàtt na lool ndax boo amoon gis-gis bu yo bu bu sori yi danga xam ne suuf si am ñuy ñëw ëllëg war cee jariñu te boo ko saax-saaxee bu ñëwee ëllëg coono la leen di jural kon yëg-yëg boobu yaatu ci ñun lool loolu dama joxe exemple suuf si rek waaye noonu lañu ko defee nag ci alal jépp nag daanaka moomeel gépp noonu lañ ciy doxe mooy waral it léeg nga gis ñu ne la nguur gi moom lekk ak naan la fal folli ko day bette mel na yow bu ñu la falee ne la saytul ñi li ñëpp bokk ñu jàpp ne yow dañu laa war a gëmloo ne la kon da ngaa war a commencé nag di noos di lekk kan naan ndax foole ko daf lay bett loolu boo koy jàngal nit yaa ngi koy jàngal déggin wu juunu ci ab yar loolu moo tax jumtu yooyu na nga xam nañ ko bari ci ñun lool nag léeg-léeg ñun la njariñ loo fekkee maanaam njuumte féetewu ko kaw njariñ loo fekke mooy yow li nga fexeel daal ba lépp noo ko mën a jariñoo baax na keneen seen newut ci moom mais loolu bu ko ñëpp defoon tey adduna bi du agsi fi mu agsi ñun tey li ñuy jëfandikoo lépp fi mu nekk nii muy ay jumtukaay yu xarala muy yi baree bari ña ko xalaatoon doon ko toppatoo ba mu agsi fii ñoom jëriñoowuñ kon njariñ loo fekkee ci baat yu juune yi nga xam dana tax nit ñi di sàggane alal ji ñëpp bokk ci la bokk exploitation bu jéggi dayo bi nga xam dañ koy def alal ji ñëpp bokk ci misaal tey am na ñoo xam ni xaalis rek bénéfice rek la ñuy wut dañuy ay tudd leen ni commerçant wala tudd leen en ay nit ñuy yaxantukat wala yu mel noonu ci ngay gis àll bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk xoolal tey niñ koy dagge daggin wu jéggi day woo xam wóor nañ la ci kanam tuuti des ne tuuti Sénégal boo lépp désert lay ndax ñun fii ñu dëkk tey tàmbalee ko jëm jëm gànnaar ba fuuta dañ lay wax ne la forêt bu taras la woon waaye di ko exploitation bu jéggi dayoo di ko dagg daggin bu jéggi dayoo moo tax suñ àll bi lay gisadoo fi àll àll bi bépp gisadoo fi mu ne tey ma ngay gën di dem rek kon bàyyi nit ngir seen intérêt bopp doo mu tax nga dem garab gu baax nga ne ko tipp dagg ñëw yaa xam lal nga ci defar wala bunt nga wala almuhim yaa xam na nga defar jaay ko boo ko jaayee sa dong lay dem loolu exploitation bu jéggi dayo la boo xam ne nii ñu ngi koy def ci ressources yi nga xam dañ koo am te muy jur ëllëg ñi fi nekk nii mën nañ koo jariñoo waaye coono bu mag ëllëg moom lay jural maanaam nit nga xam ñoo war a ñëw ëllëg war a dund ci réew mi exploitation bu jéggi dayoo ngir wut bénéfice rek ak alali àddina kese kese dañ cee bàyyi xel nit ñi ba ku nekk di ko doxe noo xam ne nii alal ñëpp bokk lu ci baree bari des na ci kanam tuuti ay jafe-jafe yu baree bari mën na caa judd kon war na noo seet kenn newul bu kenn exploité àll bi ak yu mel noonu ndox mi ngay gis nii ni koy yàqee jéggi na dayoo waaw maanaam yow danga am tool war koo mën a roose goutte à ci misaal nga xam maanaam arrosage bu bu économiser lay doon nga bañ ko def dem ubbi robinet ma fanaanee xel mu wóor la ne yow yaa ngi yàq ndox mi ndax fayoo wala yu mel noonu loolu lépp ci xeetu yàq alal ñëpp bokk la te lu nekk doo gis maanaam dafa am day jeex yi nga gis yëpp day jeex ndox mi nga gis maanaam bët bi day gis day jeex pétrole bi nga gis day jeex gaz bi day jeex yëpp bu ñu ko dee saax-saaxee ne euh, koy ñëw ëllëg duñ ko mën a jariñoo day jeex kon exploitation bu jéggi dayoo moom ci lii tax nit ñi sàggane alal yi ñëpp bokk ci la bokk léeg-léeg itam nga am naqar ak métit sa digg ñi lay gouverner mu wóor la ñu ngi lay tooñ tooñ gu jéggi dayoo te mënoo ci dara pression bu metti ñu la koy teg ci fànn yu baree bari seeral dund bi seeral paj mi seeral njàng mi yàqu-yàqu yu baree bari nga di ko encaisser nit ñi dañu am wax bu ñu fa àggee te amuñu gisuñ kenn kuñ ci waxal gisuñ kenn ku leen ci waxal tam bu yàggee dañuy exploser yàgg dañuy toj mu ngi mel na nga jël mbuus rek ak mbuus boo ko jëloon di ko wal boo të bàyyi bu yàggee danaan tëf bu nee tëf nag la newoon ci biir mën naa taqal koo xam yoonam newu ci loolu dafay am ci suñuy doxalin léeg-léegi mooy waral leg léegi ñi ñu jiite bu fekkente ne ñi ñu jiitu gis nañ ne ñi leen jiite yoon wi jaar jéggi na dayoo ni ñu yàq alal ñëpp bokk jéggi na dayoo ñu ngi koy sax-saxee te mënuñ ci dara bu yàggee ñoom it dañuy génn di yàq comme ñëpp loolu nag dañ cee jëfandikoo li ñu wax fuul fuul mooy mbooloo boo xam ak ndiiraan ndiiraan goo xam dañu jeg-jeg rek ruy rendoo ñooñu lu ñu lu ñu romb mën nañ koo yàq ak di jëfandikoo benn benn ñi nga xam seen yëg-yëg seen conscience matagul lu mel ni xale yi ñu jëfandikoo mooy waral léeg-léeg nga gis xale yi yàq ba ne wëlba di ko di jéggalu loolu la koy waral mooy ne dañ leen a jëfandikoo ci ñoom xam ne ni xëy na naqar rek moo taxoon ñu di ko def waaye xamoon nañu la ñuy def du kii kon yooyu moom yenn la ci yi nga xam dana tax nit ñi di sàggane alal ji ñëpp bokk léegi nag ñu tudd tuut ci yi nga xam ne nii ay melokaan la yoo xam ne nii képp ku koy def wala nga gis ku koy def jàppal ne yaa ngi yàq alal ñëpp bokk bi ci jiitu mooy yàq yàq ko maanaam yàq masalan tabax boo xam ne nii tabax boo xam ne nii public la ñëpp ko bokk nga ñëw am noo ca jëfandikoo ba yàq ca lu bari wala jardin public yi ma waxoon léegi féexlukaay yi nga ñëw yàq ca ko wala ay meubles yu ñu def ci barab lu mel ne tey nga am école boo xam ñëpp fay jànge taabal ban yeeg taabal yi ñu def ak yu mel noonu nga fekk ko ci ak yeneen bureau yi nga di ko yàq yooyu yëpp moom la ñu di yàq loo ci yàq moom la ñuy yàq ci misaal tey bu ñeloon taabal bi bii ko tax a jóg waaye toog tax koo jóg nga ñëw toog ci mu toj dañ naan da ngaa yàq àll ñëpp bokk loolu léeg da nga gis ci barab yu bari ba da yu baree bari ñu teg fi ay ay toogu ne kuy xaar toogal ci banc yi teg ay taabal yoo mën naa am looy teg teg ko ci tax nga gis ku ñëw toog ci ko taabal bi loola ci ci façon yàq ñi ci la bokk kon yàq yi mën naa mën nañ ko tudde nu baree bari ci misaal tey bâtiment bu ñu tabax ba mu baax peinture ko ba mu rafet nga ñëw jël ibil wala loo xam ne nu taqrib sànni ko ci ngir da ngaa mer wala yu noonu taqal ko moom taqrib booba yaa ngi yàq alal ji ñëpp bokk walla foo xam ay weer la nga mer ñëw toj weer yi moo xam ay bunt la moo xam lu mënti doon wala ci misaal tey garab yi ñuy def ci féexlukaay yi nga ñëw di dagg ci garab bi te amoo ci soxla wala nga ñëw di ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam mën naa rey garab yow lu noonu daal da ciy dugg walla égu yi wala kanaal yi nga xam dañu koo def ndoxum taw tax koo jóg nga ñëw sama xar de nga ñëw jël sànni ci walla nga buub sa kër ñëw xëpp ci kanaal bi loolu boo ko defee jàpp ne yaa ngi yàq àll ñëpp bokk ndax boobaa ndoxum bu ñëwee dootu jàll fii def nañ fa opération boo xam ne nii lu jéggi dee gis nañ ko fi koo xam place nga yor di jaay teg ko ci kaw barab boo xam ndox a fa war a jaar di jàll nga sakk barab bi ngir di fa denc sa marchandise ngir ndox bu ñëwee bañ a jàll loolu inondation yu baree bari mu ngi judd ci yu mel noonu lay juddoo bu ko defee coow luy bari fekk nañu kanaal yi ndox mi war a jaar ñun ñoo ko sakk bu ndox mi ñëwee du jàll bu ko defee dugg ci biir kër yi nga jural sa bopp coono jural nit ñi coonam am na nu ñuy yàq canal itam ci façon boo xam ne nii bu jéggi dayalo mooy nga am sa kër am sa wanag maanaam waroon ko wutal foos wutaloo ko foos xanaa jël tiwa bi branché ko ci kanaal bi ndox miy jaar te kanaal boobu ndoxum taw a ko tax a jóg yaa ngi yàq lu baree bari ndax ndox ma fa muy wersi loraange yu baree bari ngay jural ñoom wersi ndax ndox ma fa muy wersi ay nit dañ koy noy bokku ak fañ war a wersi ndox mi nga xam ne nii mooy ndox mi jóge ci barabu suturlukaay te loolu ñu bari dañ koy def lu bari dañ koy def opération yi gars yi def dañ koy gis lu dul jeex nit ku jël duusa maanaam kën wanagu këram branché ko ci barab boo xam ne nii ndoxum taw maa fa a jaar mu fay sotti moom lu mu koy jël moom dootu fay dootu fay vidange ci misaal waaye bu xamoon la muy yàq yaakaar naa ne du ko def mukk loolu ci façon yàq ci la bokk kon façon yàq yu baree bare kon lépp képp koo gis mu yàq al yàq façon bu demee noonu wala yow sa bopp nga di ko def jàppal nañ ñi yàq alal ñëpp bokk ci nga bokk am na beneen façon boo xam dañ ko ci jalgati mooy nga ñëw aak moo ko ñëpp ko bokk nga ñëw aak ci misaal tey ñu jox la alal ju bari ne la alal ji dañoo bëgg nga tabax ci daara wala dañoo bëgg nga tabax ci eh, hôpital barabu fajukaay wala yu mel noonu daal nga tabax ci loo xam ne daal ñëpp a koy jariñoo nga jël ko tabaxee ko sa kër wala def ko ci say tool mel noonu loolu may da ngaa danga ngaa da ngaa aakimoo alal ji ñëpp bokk loolu nag dañ ko def façon yu bari léeg-léeg ñu def ko ci sàcc sàcc gu leer nañ goo xam da ngaa sàcc alal ji moom ñu jox la ko nga sàcc ko wala nga def ko jaaree ko ci ay pexe jaare ko ci pexe loolu sax moom bari na ci loolu léegi ci ni muy amee loo xam alal joo xam da nga koy aakimoo te fekk na ci ay pexe ca nga koy jaarale ci misaal tey ñu ne la dañuy def appel d'offre maanaam dañoo am fu ñu war a tabax école ci misaal dañ bari li ñu joxe misaal ci école nag xëy na li ñu ci yëngu doo tax ñu ne dañuy tabax école ci misaal ñu génnee ne école bi 100 millions moo ko war a tabax nga jël ko gañe ko yow sa entreprise gañe ko waaye nga dem foo waroon def faire 14 nga def fa 8 wala 6 foo waroon def faire 10 nga def faire 6 wala yu mel noonu sàcc dosage bi fàcc maanaam bidon bi war a dem lépp nga sàcc ko gagné ci 50 millions ci misaal da nga naan am di jàpp ne am nga xaalis waaye alal di jàpp ne nga koo sàcc alal la jox da nga koo sàcc ci façon boo xam ne nii ci ay pexe ci nga jaar loolu bari na lu muy am ci sunu santé yi am na ñuy wax surfacturation surfacturation mooy ma ak yow nga ne lii maanaam ñaari junni lay jar bu ko defee ma jox la junni nga dem mën naa am ka nga séqal ngeen waxtaan ba mu jaay la ko ci junni nga lekk junni ba yaa ngi moom ngeen séq fekk na man 10 mille francs nga ma facturé te fekk na affaire bi junni la lay dikk bu ko defee junni ba ba ngay lekk noonu jàppal ne sàcc la te loolu bari na lu muy am ci lu muy am ci euh, maanaam entreprise yi gañe maanaam li ñuy tabax ti ñëpp bokk baraana koo gis alalam bari lool ndax gagné nañ benn ñaari chantier public la gagné xëy nekk milliardaire loolu da lay ne du ak pay maanaam surfacturation yi am mooy jéggi day loolu gis ngeen enquêtes yi gars yi def kudd ñun la kudd gi jot trente mille francs wala yu mel noonu wala yooyu nga gis ne maanaam yu jéggi day la yoo xam ni dañ ciy jaar di lekk alal di ñëpp bokk kon façon boobu boo ko defee jàpp ne yaa ngi aakimaloo moomu aakimaloo moomu ak noo ko mën a jaaree nag ci la bokk lii ma waxoon ci léegi ci réservé yi ci la bokk suuf si suuf bu ñu ko nattee bu ñu demee nangam dañuy bàyyi bayaal bu yaatu ne bayaal bi dañ ko bàyyi ngir ëllëg bu ñu soxlaa tabax dara mën ko fee tabax bu ñu soxlaa jëfandikoo loo xam mbooloo moo koy bokk ñu jëfandikoo ñu bàyyi ko fi ñëpp bàyyi ko fi di ko fi wóoy nga xëy xëy yow miire ko ba mu daj tabax fa sa kër ngir ne danga nga sañ-sañ wala yu mel noonu loolu tam boo ko jàppee da nga boo ko defee danga ngaa aaki ah, ñëpp bokk moo nga moo moo ñu teg alal ji nga sàcc ko daanaka su réewuñ léeg-léegi loolu tam loolu tam lu tasaaroo la ci suñu réew léeg gi ñu may la foo xam ne nii réserve la ñu may la ko nga dagg jaay wala nga dagg def dox sa njaboot la mel noonu wala wala état jox la foo xam domaine national ñëpp a ko bokk wala yu mel noonu jox la ko nga def ko say tool wala yooyu loolu lépp ay yoon la yoo xam dañ jaar di ci lu ngir lekk alal ji nga xam ñëpp ñoo ko bokk kon akimoo moom ci phénomène yi ci la bokk kon képp koo xam ne nii gis nga ne yaa ngi akimoo dara wala nga gis ku koy def jàppal ne bu fekkee yow la yaa ngi lekk alal ji ñëpp bokk bu fekkee keneen a koy def jàppal ne loolu la lu mel ne kooc trisé ak ger moom it bari na lu koy jëfandikoo lool ci alal ngir mën a lekk alal ji ñëpp bokk loolu ger ku nekk xam na ne tasaaroon si réew yi lool lool sax nag ba jéggi dayo te ger nag façon yu bari lañ koy defee diis na ko def ci alal diis na ko def ci influence boo am diis na ko def sax cim xel maanaam nit ki daal yow gis nañ yow mii mbooloo mu bari ñoo topp sa gannaaw kon war nga ko amal njariñ yow ngay exploité mbooloo moom ngir di ko jëfandikoo ci say soxlay bopp loolu ger lay tudd da ngay ger boo xam yaa ngi koy jaari sa influence léeg nga joxe alal tam ger nit ki ngir am ci moom dara ger moomu nag ak wuruj boobu nag triche boobu nag bari na lu muy yàq ci alal ji ñëpp bokk li ma waxoon léegi ci tabax bâtiment yi ñuy tabax yoo xam ñëpp ko bokk nga nga nga def triche nga triche ci mooy nga tabax ko ci critères yoo xam ne nii sàmmonte woog norme yi nga xam ci lañu war a tabax bâtiment boobu loolu boobu dangaa ngaa da ngaa kooj kooj googu ci lekk alal ji ñëpp ci bokk wala ñiy def appel d'offre nga dugal sa kay ba noppi bokk ci loo xam ne nii waa ji bu ko ubbee day tax mu jàllale sab kaye te fekk ne waroo woon a jàll yooyu yëpp xeeti ger la yoo xam gis nañ ko mu koy am wala nga defar ba noppi bureau de contrôle bi war a ñëw war a contrôler liggéey bi nga ger ko neexal ko bu ñëwee du def liggéeyam fii da ngay gis ñu tëli tëli boo xam ne nii def nañ ci ay milliards ñu service bi ko war a contrôle ñëw contrôler ko ne mën nañ si na ko réceptionné ñu réceptionné ko toog benn at ñaari bi commencé yàqu loolu ku nekk xam ne ni te lii dañ koy garanti day am garanti day am durée boo xam daf ko war a am tabax it naka noonu tabax boo xam ne nga koo tabax ki ko war a contrôler ñu ko réceptionné ko ñu dëkk ci benn at ñaar bu commencé fu nekk loolu ku nekk xam na ne entreprise bi tappale na waaye bureau de bi ko doon contrôler ba réceptionné ko tam kenn jiitu ko ci tappale yi te loolu li koy waral mooy léeg-léeg dañu lay ger bu ko defee boo ñëwee contrôle bi nga war a def doo ko def bu ko defee ñu jébbale ko nag fekk na yow lekk ngeen alal joo xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk moo tax ger mi ngay gis nii moom li ñuy lor di ñu ko yàqal bari na lool lool lool lool lool sax nag ba jéggi dayo jàppal ne tam képp koo xam ne nii yaa ngi def fraude marchandisum fraude képp ku koy jaay jàppal ne yaa ngi jalgati alal ji ñëpp bokk ndax aw li njëkk mooy al marchandise bi na nga koo dugal ci réew mi te fayaloo ko duwaan fayaloo ko benn taxe nga dugal ko boo ko dugalee yaa ngi yàqal ki nga xam ne nii moom daa jaar marchandise am ci yoon fayal ko duwaan taxe ko ñëw koo jaay normal yow nga dugal marchandise moo xam ne ni fraude la ñëw daane prix bi booba yow li nga waroon dugal ci keesu état bi dugaloo ko ci kon jalgati nga ak alal ji ñëpp bokk waaye itam yàqal nga ñeneen ñi seen liggéey ndax yaa ngi jaay ci prix boo xam ne ñoom mënuñ koo jaayee ndax bokku leen fa ngeen jaar kon fraude képp ku koy def cim réew jàppal ne yaa ngi jalgati alal ji ñëpp bokk ndax li waroon dugg ci keesu état bi du ci dugg te keesu état bu amul xaalis ngir mu liggéey dana jafe képp koo xam ne tam dañu laa fayloo impôt nga bañ ne du ko fay ak foo ko mën di teg jàppal ne alal ñëpp bokk yaa ngi koy jalgati ndax commune boo gis ci misaal ay ko yor impôt yi patente ak impôt yu mel noonu moom la ñuy fay bu ñu ko dajalee ci la ñuy liggéeyaat commune ba ci misaal yow bu fekkee ne du fay impôt jàppal ne kon bu bu réew mi doxul ci ñu ko ñàkk doxal ci nga bokk te impôt nag ku nekk da nga a fay ku nekk nag ak fi nga toll nekk ak li nga war ak li nga war a na kon ñàkk fay impôt ku ko def jàppal ne yaa ngi jalgati alal ñëpp kon yooyu façon jalgati la yoo xam ne ni dañ koy gis te ger nag gën cee métti moo tax xëy na lislaam boo gisee mu ñuy moytuloo ger ci façon yu baree bare ki koy def ak ki ñu koy defal ak ki koy intermédiaire beeg yëpp mu leen ne yéen a ngi ci rëbbum suñu borom ndax dafa xam li gër mën a yàq ci biiru askan te it man ñu gëm nañ ne suñu réew mi kenn mënu koo defar développé ko mu jëm kanam te lijjanti woo mbirum ger ba noppi xëy na jëlee ko fi complètement nga xam dootu fi am moom lu jafe la waaye nag waris na koo mën a wàññi ba mu wàññi ko lool lool lool ba loraange ji ci doo mën a wàññi ko lool lool kon yooyu moom sàcc ak ak ger bokk na ci yoon yi jaar ngir lekk alali mbooloo mi bokk na ci tam ni nga koy jalgate alal ji mbooloo mi bokk mooy nga sàggane liggéey bi ñu la dénk dangaa nekk fonctionnaire wala yu mel noonu ñu dénk la liggéey nga war koo saytu ci façon ba nga ko war a saytoo nga sàggane liggéey ba ba njuumte am ci jàppal ne jalgate nga alal ji ñëpp bokk ci misaal te dañu laa teg barab nga war a saytu xaalis wala yu mel noonu nga sàggane ko ba réglage yi maanaam ni nga ko waroon régler réglé ba ay njumte yu bare bare am ci ba lu bari yàqu ci jàppal ne yow am nga responsabilité ci jalgati alali mbooloo mi tey bu ñu la defee nga ne dañu jàngale kan nga ñu ne dañu lay fay par weer ngir nga def liggéey sàngam ñu lay fay weer yi nga di ko lekk te bu liggéey ba jotee boo demee doo dem heure doo wàcc heure boo duggee ci classe bi doo jàngale ni nga war a jàngale booy fajoo saleer ba ba di ko lekk jàppal ne yaa ngi lekk yaa ngi jalgati alal ji ñëpp bokk ndax la nga si waroon a wàccoo ak mbooloo mi wàccoo woo ak moom loolu nag natt ci liggéeykat yi ci des yëpp mën nga leen cee natt gardien bii rek ngay gis tey dañ laa jox jël def la gardien ne la bâtiment bi yaa koy garder guddi jot nga tëdd nelaw ba ay tàmba bay ñëw fa daaji ko def ci defa nu ko su dul noonu jàppal ne la fa yàqu kenn ëpp la ci responsable ndax dañ laa fay ngir nga def lii te defoo ko loolu kon jàppal ne jalgati nga alal ji ñëpp bokk yooyu yëpp ay yenn la yi nga xam ne nit dañ ci jaar ngir lekk alal ji ñëpp bokk beneen ak nii boo xam ne tam ñu bari duñ ko bàyyi xel mooy li ñuy wax détournement d'objectif maanaam léeg-léeg alal day génn ñu war cee def dara ñu jëlee ko fañ ko waroon def yóbbu ko feneen maanaam ci misaal tey ñu ne la ñuy tabax hôpital ci dëkk bi ñu génnee budget bi war a tabax hôpital bi waaye bañ ko génnee ba noppi nag am ay nit ñu ko dévier jàddal ko yóbbu ko def ci leneen loolu ñoo détournement d'objectif loolu tam day bari lu muy am ci sunu mbir yi lu baree bari tax alal diñ la jox nga war cee tabax nàngam foofa nga ko war a dugal ndax mooy tax ñu mën koo contrôler bu ëllëgee waaye boo ko jëlee dugal ko feneen mooy da ngaa détourner objectif alal jooju loolu nag ci façon yi ñuy lekkee alal ji ñëpp bokk ci la bokk ndax léeg-léegi dañ négocier contrat ba xaalis bi génn ñu xam ne xaalis bi génn na waaye dañ koo détourner yóbbu ko feneen jëfandikoo ko ci leneen misaal a ngi nii ci misaal tey oto oto oto service yi ñuy joxe mais dafa am lu ko tax a jóg service bi moo ko tax a jóg li fekk yaa ngi dem ci service bi am nga sañ-sañ jëfandikoo oto bi waaye bis boo paree ci service bi amatoo sañ-sañu nag jëfandikoo oto ko war a gaare waaye ñun xoolal suñu service yi foo tourné gis leen foo tourné gis leen maanaam loolu lañ ci def taxaw ne sax dañ ko ciy def maanaam leen neex lañ ciy def ak carburant bi ñuy lakk oto bi di ko rappal ko moo tax oto bu ñu leen jëndal at ñaari mu màggat ñu jënd beneen loolu ay milliards yu jeex lay coûter réew mi te oto service la oto service maanaam boo paree danga nga ko war a gaare waroo ko jëfandikoo ci feneen courant bi ngay gis léeg nga dem ci barab service yi gis ñu taal climatiseur yi bàyyi ko noonu wàcc bàyyi ko noonu muy tàkk wala nga gis ku nekk ci barab nekk ci kër goo xam ne nii service bi moo la ko jox nga yor sa nangami frigo di jaay di jaay crème ak jaay glace ak lu ne nga jaay ko te ci courant bi nga koy lakk loolu lu bari loo xam mi nga am ci suñu biir kon yooyu yëpp ci xeetu jalgati alal réew mi ci la bokk ndax yow maanaam bu fekkee ne kër gi yéen na koo jox muy sa këru service mais xëy na mën nga am nga sañ sañu taal làmp am nga sañ taal wan la waaye nag di jaay crème ak glace ak yooyu di ko lakk ci courant bi moom amoo ci sañ-sañ ba ci téléphone yi ngay gis xëy na téléphone léegi wàññi ko ne waaye bu njëkk da ngaa gis koo xam ne ni bu bëggee téléphone service lay dem ñu ubbil ko mu wax lu ko neex bitim réew fu mu nag bëgg a woote woote ci ligne boo xam ne nii public bi ñoo ko moom kon yooyu yooyu yooyu yëpp ci ay mbir la yoo xam ne ni dañ ciy jaar di jalgate alal ji ñëpp bokk te ñu war cee gën a bàyyi xel ñu bari nag dañ koy def defe ne dara ci fekk na yaa ngi jalgati ak fi ne oto bi nga yor muy sa oto service nga jàpp ne ko soxla war nga ko mën a abal mais warta demee noonu ndax oto bi service bee ko tax a jot te bu màggatee bu yàqoo dañu jënd beneen jox la kon loolu waris na cee bàyyi xel ku mel ne Omar ibnu Abdul mën nañ koo tudd fii daf cee jàngale woon lu am solo ci li ñu waxtaane ni léegi nii dañuy wax dafa am benn bis mu toog ak ay jawriñam ay ministère am ministère am ci misaal ñuy def conseil de ministre ci misaal léegi mu guddi jot nee nañ ñu taal sondeel di waxtaane mbirum réew mi bi ñu demee ba conseil bi jeex nag ñu commencé nag di waxtaan seen mbiri bopp mu ne leen fay leen sondeel bi ñu fay sondeel boobu mu daal di génne beneen jox leen ne leen taal leen bii ne leen bii maa ko moom waaye bii ñu taaloon léegi nguur réew mee ko moom comme li ñu waxtaan ci réew mi jeex na nag dañ koy fay comme suñu mbir bopp ci lañ nekk nañu jëfandikoo suñu yëfi bopp loolu defe naa bu fa ñëpp nekkoon ñu jiite ne si maanaam waa waa réew mépp ne foofa yaakaar naa ne lu baree bari mën nañ koo sàmm ndax it nañ jàpp nañu suñu réew yi ñàkkuñu am nañ xëy na kay saytu alal jiñ bokk moo ñu tee mën a développé waaye fi nekk nii am nañ ci ay man-man ak i yëf loo xam bu ñu ko dajalee saytu ko normalement maanaam bor sax mën nañ ko bañ a bari la lool waaye nag day fekk ku nekk dugal ci sa loxo ci sàmm ko ak ci di ko toppatoo kon xëy na tomb bi ci topp rek mooy ñu tënk tuuti ci taxawaayu lislaam nag ci alal ñëpp bokk xëy na lii li ñu wax lépp moom ñëpp a ko bokk lislaam a ngi ci biir sax waaye xëy na am na yeneen yoo xam ne su na ko tudd ci biir njàngalem lislaam xëy na bokk na ci liy tegtale lislaam diine ju mat la liy tegtale tam ne ci sunu borom la bàyyi ko mooy fon yi ma nga xam ne ci la li <clears throat> nga xam ci la dund di sukkandiku daf koo bàyyi xel lool lool lool muy ngelaw li muy ndox mi muy nature bi ak yu mel noonu géej yéeg yooyu lislaam daf koo bàyyi xel bu baax a baax boo gisee baatu tasxiir tasxiir mooy lu ñu la tàggatal nga di ko jëfandikoo ñaare da ngay dégg wa saxara la ko mu la nangam maanaam guddi geeg bëccëg moo la ko tàggatal nga di ko mën a jëfandikoo moo la tàggatal géej nga di ko mën di jëfandikoo lu nekk mu ne la ko tàggatal ngir nga di ko mën di jëfandikoo kon dañ la ko ngir nga mën di jëfandikoo yaag ñeneen ñi ngeen di ko bokk kon l'islam ngelaw leeg temps beeg yëpp nga xam dañ koy jëfandikoo moom daf koo bàyyi ñëpp bokk ko mu tàggatal ni ko ñu ñëpp ñu mën koo jëfandikoo te kenn du ci xatal sa morom waaye nag jàppal ne tey ngelaw lii ñuy noyyi tey bu fekkonte ne dafa nekk ci loxol nit maa nga xam moo yor robinet ngelaw li fi ne bu ñu meree rek mën naa daal dem tëj robinet bi ñëpp daal di faatu te ku ne xam ne nit ñi bu ñu noyyiwut dañu daal moo tax ngelaw li suñu borom euh, def ko milki mu saaxa maanaam milki maanaam moomeel goo xam ne nii ñëpp di ko jëfandikoo te kenn du ci xatal sa morom bu fekkonte ne day lii ñuy jëfandikoo muy aalam ji nii su fekkonte ne ci loxol nit la nekk mën na koo monopoliser maanaam da koy da koy denc denc ko nit ñuy def marchandise nga xam ne tey ci misaal dañuy jël pepp mi wala ceeb bi wala yu mel noonu denc ko ba manqué lool lool bu ko defee njaay ko nit ñi lu seer fi mu ne tey am na yoo bu nekkoon ci loxoy nit ñi noonu lañ koy def dañ koy jël tëj ko denc ko bam ñëpp soxla woo ko yitte ñu jekki-jekki ubbi ko di ko jaay nit ñi lu seer bu ko defee ñenn seen loxo ji seen kanam ñu jaar jafaatu moo tax lislaam yi nga xam ne nii moom nit ñi mënuñ koo ñàkk mu ne ñun ñëpp ñoo ko bokk am na ndox yoo xam kenn amul sañ-sañu aaye ko kenn ngelaw li kenn amul sañ-sañ ay kenn ne ko doo ko noy ak yooyu daal nga xam dañu ko eh, dañu ko defal moomeel gu ñëpp bokk lislaam nag noonu la joxe alal ji tam solo alal ji ñëpp bokk nee na bu leen lekk alal ji ngeen séq seen biir di ko teg ci caaxaan mu bu leen ko def daal di waxit ne bu leen sukkandiku ci seen doole seen nguur ci misaal seen doole pour di lekk alal nit ñi wala boog ay nit sukkandiku ci yéen ngir yéen a féete ci nguur gi ngir mën a lekk alal nit ñi bu leen bàyyi bu leen ko nangul kenn bu leen ko def yéen tam mu ne nag képp ko def nag am nga bakkaar bu mag bu lay xaar kon alal ji ñëpp bokk moom lislaam sévère na ci lool lool lool sax ci boo koy jëfandikoo ak ni nga ko war a jëfandikoo waaye xëy na bu ñu jëloon mbedd mi mbedd mi nga xam ne nii moo ñu gën a jege tem siw lool te ñëpp bokk waxoon nañ ko léegi ñëpp bokk ko nga gis islaam naka la ci taxawe buñ ko buñ ko déggee foofu rek mën nañ koo jooyal ci li ci des lépp fi mu ne boo gisee mbedd dafay am lu am solo ci ëpp dëkk fi ne réew moo dem li njëkk a frappé sa gis-gis maanaam li nga njëkk a seetlu ci dëkk bi mooy mbedd mi ni mel fi ne réew moo mën wala barab boo man di wàcc rek la ngay njëkk a xool mooy mbedd ma nu mel ndax set na ndax organisé wu na am nay garab amut ndax toppatoo nañu wala toppatoo wuñu fi ne boo wàccee ci réew gis mbedd yëpp set wicc rafet lool ñu jëmbat koy garab defar ko ba mu normal da ngay daal di jox cër waa réew mi waaye fi ne boo fa wàccee gis mbedd yëpp salte même du kii moo tax réew yi am na réew yoo xam ne nii mbedd yi sax lañ gën a fonk seen biir kër yi mbedd mi lañ ko defar ba mu baax loolu moo tax lislaam mat gu mat moo tax mu jox mbedd moomu cër bu mat sëkk ñii di ay jullit nag dafa mel ne loolu ñu baree bari ci ñun duñ ko bàyyi xel ndax mbedd moomu li am solo maanaam jumtukaay maanaam ah moomeel gi ñëpp bokk liñ ci gën a yàq mooy mbedd mi ñëpp bokk rawat na nag ñun sunu gox yi ñu dëkk ñun mbedd mi mooy sën bi yow da ngay da ngay da bale sa kër ba mu set nga ñëw sotti ci mbedd mi bu ñu waxee nga ne mbeddum buur la booba yaa ngi jalgati mbedd mi mooy suñu terrain fi la ñuy fubale ku bëgg a fubal ku bëgg a fo mbedd mi ngay dem baare ko yaa ngi da ngay tàggat sa yaram loolu yaa ngi jalgati boo bëggee cant wala màggal wala ngénte nga dem baas baare mbedd mi kenn du am foo jaar loolu yëpp boo ko defee yaa ngi jalgati alal ñëpp bokk mooy mbedd mi kenn waru koo jëfandikoo faso façon boobu te koo wax mun la mbedd mu buur la kon noonu laa ko jëfandikoo loolu def naa ne njuumte la ci déggin mu ñu am ci mbedd nga gis koo xam ne nii pas de portam maanaam maanaam li mu am ci mbedd mi un eh, bi mu am ci mbedd mi wala yu mel noonu da koy defar ba mu baax mu daal dafay samp pono daal di jël nag digg mbedd mi gas ko ba mu xóot ndox moom soxla fa la koy tuur lu lu mu yàqule fa la koy sat loolu lépp dafay tegtale ne eh, maanaam ñun li ñu lislaam jàngal ci suñu digg mbedd dese nañ koo xam bu buñ ci fàttalee yedd dañ ci mën a sukkandiku ngir lu mel noonu moo tax setal mbedd bokk ci ki lislaam ponk ponki ngëm yàlla ci la bokk jàng nañ ci xaddis ñu ne ngëm yàlla juróom-ñaar fukki xaaj la ak juróom-ñaar wala bokk ak nàngam juróom-ñaar fukki xaaj la ak nàngam ñu ne ba ci gën a kaw mooy nga wax laa ilaha illallah ñaari baati seere yi waaye neeñ bi ci gën a suufe mooy nga fekk luy lor nit ci kaw yoon nga jëlee ko fa def naa ne kon maanaam bale mbedd jàppal moog moog moog laa ilaha illallah man man ko xaw a ma nga koo mën a yéegal foofu ndax moom ñoo bokk fi ñu leen di xaaj xaaj bu ñu bokk kon nga gis ne ku jox yitte ju doon noonu mbedd yaakaar naa doo ko taxal kon nga fekk luy lor na benn xeer rek mu ne ci kaw mbedd bi nga àndale ko bokk na ci pàcc ngëm yàlla waxuma laa na nga fekk fa ab sën nga ton ni ko wala nga fekk fa ndox mu ñu tuur nga defal ko ba nit ñi man faa jaar jàng nañ ci histoire ñu ne yonent bi mas naa romb ñaari barab taxaw daal ne ñii de ñu ngi leen di mbugal daal di mooy ñi ba mu yàgg mu ne moo ne li ñu leen di mbugale day du du lu du loolu ba mu yàgg mu ne ah kay lu rëy la sax kay mu ne kenn ki ñu ngi koy mbugal ndax da daan tuur ndox ci kaw mbedd mi nit ñuy jaar dafa ndox te te looloo ko jiite loolu maanaam da dem tuur ndox ci fi nit ñiy jaar wala mu dem ker goo xam nit ñi dañ fay féexlu mu def fa naka su noonu nga gis nag loolu kon ñun nag lañ nat suñu bopp foofu ñun nga gis maanaam ñaare waa mbedd yi baree bari boo fi jaaree gis niñ koy defee jëfandikoo ci fànn boobu dalay jaaxal loolu nag kon war na noo xam ne képp kuy def lu mel noonu wuute nga ak lislaam waaye tam wuute nga ak sàmmonte ak alal ji ñëpp bokk ñëwaat na ci xadis ñu wax ne yonent ba saa wax kenn saaba yi ne jàngal leen ne leen yàlla ku teey la te lu teey la bëgg yàlla ku set la te lu set dong la bëgg yàlla ku tedd nga te teraanga rek la ku tabe la te ku tab lay bëgg daal ne nag kon na ngeen di seetal seeni kër te bu leen nuroog yenn gaa yi yenn gaa yi nga xam dañuy taxal seen kër xëy na mu ne na ngeen bale seeni kër ba mu set bale sa kër ba mu set nag mooy bale sa kër bale mbedd mi waaye bu balee kër ba mu set nga sotti ko ci mbedd mi tam maanaam zalika bale woo kër gi setal mbedd mi toppatoo ko mooy jéego bi ci njëkk lislaam jàngal ñu ko te ñun ñu baree ñun nag duñu koy bàyyi xel te nag boo ko boo ko jëlee foofu rek mën nga ko yaatal ba mu gën a yaatu ci alal ji ñëpp bokk bokk na ci ñi koy sàmm itam mooy fexe ba di fa toog lu mu gën a néew bañ koo def grand place ndax boo ko defee grand place da lor nit ñi ndax mbedd mi ñëpp fi war a jaar ndax ñu ñëpp mbokk te am na noo koy defee grand place di fa jaar am na koo xam dootu fa mën a jaar ndax bu fa jaaree mën naa am ma ngi lay bàyyi xel noo koy xoole wala yu mel noonu moo tax yéen di ma sam jàng saxaaba yi ne leen maa ngi leen di moytuloo toog ci mbedd ñu ne ko ah a toog nag ndax mooy suñuy garam place fa la ñuy waxtaane a ñu ne ko lan mooy àq mbedd mi mu ne bu ngeen fa toogee na ngeen fexe ba seen gis na ngeen ko damm fi la xaqiqa léeg nga dem ci mbedd moo xam ne nii doo fa bëgg jaar ndax mbooloo ma toog nañ lay xoole waaw nga xam doo fa a jaar da ngay dem ba doo mën a jaar ndax boo mel noonu mu ne kon bu ngeen toogee ci mbedd mi na ngeen wàcc seenu xool waaye itam na ngeen fegal nit ñi seen loraange moo xam loraange làmmiñ la moo xam loraange loxo la ku leen nuyu itam na ngeen ko delloom nuyoo lu ngeen gis muy lu baax na ngeen ko digle bu ngeen gisee safaan na ngeen ko fay aaye ak noonu noonu mel noonu kon yooyu mooy yi nga xam ne ne bu ngeen toogee ci mbedd mu leen ko ñàkk bañ ñu nag bu ñu toogee ci mbedd yii duñ ci bàyyi xel man ngaa romb ay groupe ñu toog ci mbedd nga leen salaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wax na nga ñett yoon kenn du mel ni nuyu wóore wala ñu mel noonu ak yooyu ak nag leneen loraange nga xam ne ni mi ngi ci juddoom kon yooyu moom la lislaam jàngale ci ci ci ni ñuy sàmme mbedd ñu xool nag loolu mën nañu mas na cee joxe misaal ci nim yittewoo tam alal jeeg yeneen moomeel yi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk xëy na nag am na ay ay valeur ak i cëslaay yoo xam ne nii danañu dimbale ci ñuy sàmm alal ji ñëpp bokk moo tax li ma waxoon léegi ci ñu war a jëmbët ci nit ñi ci la bokk xëy na bu ñu waxee valeur nag maanaam cëslaay bi nag bu ñu ko waxee valeur bi ci boppam ak ak déggin yi léeg-léegi dañuy xaw a mel ne lu lënkaloo waaye léeg-léegi nag dañuy wuute ci biir duñ ko bàyyi xel ci misaal tey ñu ne la valeur ni nga koy xamee ci nit mooy day sax ci nit ki ba day bàyyi dara donte daf koo bëgg waaye maanaam loolu moo koy ci misaal jom ak ngoro yu mel noonu bu nekkee ci nit am na lu muy bàyyi loo xam dana ko bëgg lool mu amal ko njariñ lool waaye dana ko bàyyi ngir jomam wala ngir ngorom wala yu mel noonu maanaam kon déggin wa ma nga fa waaye nag maanaam cëslaay bi muy sukkandiku valeur yi mu sukkandiku moo ko may mu def loolu ci misaal jox misaal ne la yaa ngi gis docteur ci misaal boo xam day jëfandikoo tux day cigarette moom xam na loraange yi ne ci loolu war na ko ne day rey day day joxe cancer yu mel noonu waaye nag amul conscience bu mat ci biiram bu ko mën a may mu puus ko ngir ne bëgg-bëggam boobu war na koo mën a not ngir bañ a def lii kon topp bëgg-bëggam moo tax valeur bi ñu ko doon jàngal mënu koo dégg ci misaal tey ki nga xam day sàcc alal ñëpp bokk wóoru na ko ne sàcc la moom mu koy def wóoru na ko ne sàcc la wóoru na ko ne sàcc baaxul lislaam nangu ko diine nangu ko ngor nangu ko xel nangu ko waaye nag conscience bu ko may ne bu ko mën a may mu mën a ñàkk sàcc donte mën na caa ñàkk alal waaye jomam ak ngorom ak cëslaa yooyu nekk ci biiram mooy tax du sàcc kon nag cëslaay yooyu mooy nit ci biir nit ki moo koy freiné ba ba ba ba lu mu bëgg def du ko def moo tax fi nekk suñu borom may nañu ku nekk ñun benn réveil mon montre réveil boo xam daf la ko monté ci sa biir mooy mooy conscience bi fi ne lépp looy bëgg a def dan la alerte xëy na nit ñi nag ñu ngi wuuteenti ci mën koo déglu am ñoo mën nañu am ñu ko mën a déglu waaye lépp looy bëgg a dugg am na looy yëg sa biir fi ne bu dee avancé da nga ko yëg bu dee arrière da ko yëg xëy na léeg-léeg nag da nga ko yëg ba noppi forcé def moo tax da nga forcé def ko noppi nag di ko rëcc ndax da nga naan ah pourtant man de amoon na lu ma yëgoon ma koy bëgg def moo tax yëg-yëg boobu nag moom la ñu a fexe ba mu màgg ci nit ki kon bu màggee ci nit ki ba mel ni mu war a mel boo demoon ba tiim alal ji koo sàcc yëg-yëg moo naan moo lay alal la bu ko sàcc ndax sàcc baaxul bu ko defee nga daal di dellu gannaaw loolu nag mooy waral léeg-léegi nit ñi yëg-yëg boobu màggul ni war a màggee nag danañ xam sax ne li ñuy def baaxul waaye nag yëg-yëg bu leen ko mën a tee def moom la ñu lu am moo tax loolu nag ñu fexe ba def ko ci nit ñi am na solo loolu nag éducation ci lañ koy jaar ak li ñuy wax socialisation socialisation mooy génne nit ci bàyyi ma dugal ko ci nite ak nite moom kenn du ko judduwaale da ngay juddu pare ñu def ko ci yow mooy mooy léeg-léeg maanaam fi ne ci misaal tey dañ fara jox misaal ne xale bu tuuti ak mboteb xar dañ dul sore lool fi ne ñoo bokki bagage fi ne maanaam xale bu nekkee liir bu xiifee dana jooy buñ buñ ko nàmpalee ba suur day nelaw bu yëgee ne am na doole commencé cëpp baja bajantu mbote bi noonu la koy defee bu xiifee day meem bu ko yaay ji nàmpalee ba noppi mu dem nelaw bu commencé yëg ne am na doole ngis mu commencé cëpp-cëppi kon ñoom ñaar ñoo bokk en tant que kayin biologie léegi nag fi ñuy wuutee mooy socialisation nit ki dañ koy génne ci bàyyi ma dugal ko ci nite bàyyi ma nag day continuer ci façon bàyyi am googu rek moom ci lay woy bu ko defee nag moom la ñuy wax mooy génnee nit ki ci bàyyi ma dugal ko ci nite loolu nag dañ ko war a boole bu ñu koy def ci nit ki ñu boole ca xamal ko ne ko sa conscience bi moo la war a guider bul xaar kenn ci li ngay def lépp looy def déglu sa conscience boo amee conscience tranquille rek jàppale li ngay def du am benn jafe-jafe waaye baraana koo gis conscience am du tranquille ndax da koy wóor ne def na njuumte lu réeree moo tax léeg dañu dañuy jàngale ne la am na loo boo ko defoon même yàlla mën na la koo baal sax jéggal la ko waaye sa conscience moo la ko dul jéggal mooy waral fi ne nit bu sàccee wala mu rey nit wala yu noonu la koy feeñal sax du ko xam ndax même bu kenn gisut maanaam conscience am moo dul tranquille boo ko xool danga xam ne kii am na lu mu def bu fekkente ne am nga xam-xam fànn yooyu kon conscience nit bu màggee rek am na yu bare bare yoo xam du ko def ñu fexe ba nit ki gëmin ne suñu borom mi ngi lay fuglu lépp looy def kon war nga ko caa bàyyi xel kon nga am res yow mi ñu dénk mu wóor leen lii ñu dénk yàlla mi ngi lay tiim di la xool te it ëllëg da nga ko layoog moom da nga ko layoog nit ñi nga xam ñoom nga ko seqal tam dénk nit ñi itam ñu fexe bay digg doomu ku nekk xam nga li nga mën ak li nga mënul am na façon jalgati yoo xam li koy jural nit mooy dugal sa bopp ci loo mënul moo tax lépp looy dugg fexeel ba na digg doomu sa consommation nga fexe ba teg ko ci yoon yow da wóor nañ le salaire bi nga am 1 million la ci misaal par weer nga bëgg a dépenser dépense 2 millions wala 3 millions ci weer fooy jëlee 2 millions yi ci des ak foo ko yaakaar ndax yow salaire 1 ku nekk salaire bi ñu la jox wala boog la ngay am daal yaa xam nu mu toll war ngaa mën a fexe sa bali ngay consommer nga débbale koog moom waaye bis boo jéggee sa man-man ci wàllu consommation mooy dugal nga jëfandikoo alal joo moomu loolu nag ñun ñun ñëpp ci war a bàyyi xel te bokk na ci lim ñuy lor ci ñun ñi mooy di dund niveau boo xam waru na du sa niveau nga nga mu yóbbee la loo xam ne nii njuumte yu baree bari yoo xam mën na caa bañ a fekk kon nañ fexe bay contrôler suñu bopp ci wàllu dépense ku nekk xam nga li nga man nga def ko te yam ca ku nekk xam nga sa place nga jël ko te yam fa ndax coow li muy bari bari nag mooy ku xam ne fii du place am ba pare mu bëgg a ne fa lay nekk loolu jafe-jafe lay indi kon nañ ciy bàyyi xel ci loolu bàyyi xelit ci yàq gi yàqit dana tax ñuy jëfandikoo lu ñu moomul liggéey liggéey nangameet ñaari at xëy ko yàq ci benn bis bu ëllëgee nga commencé waat dajale waat mën na laa dugal ci loo mënut mën na laa dugal ci loo xamul kon yàq gi tam nañ koy moytu yàq nag ku nekk xam nga la nga def ku nekk xam nga lañ nga def la cay farata xam nga ku la ca dul farata xam nga bu jéggee farata ji nag jàpp ne yaa ngi dugg ci buntu bu yàq kon loolu tam ñu ciy bàyyi xel ci fexe ba contrôler li ñuy maanaam su ñuy li ñuy dépensé maanaam li ñuy feree suñu xaalis waaye itam fexe ba lépp lu yàq ñu di ko moytu ndax mën nañoo mën nañoo aar ci jël luñu moomu fexe tam ba orienté nit ñi ci ñuy tànn ñi ñuy àndal mooy bu fekkente ne da ngay liggéey. fexeel ba ñi ngay àndal nga tànn leen bu baax a baax a baax ndax fi mu nit mën naa jub lool sax jub lool sax waaye di ànd ak nit ku jubadi nit ku jubadi nga fexe ba dugal ko ci njubadi wala sax mu jëfandikoo ko ci mbaaxam ngir def njubadi moom loolu bari lu muy am koo xam dañu lay jëfandikoo ci sa mbaax ngir def ñoom seen njubadi loolu nag moo tax boo fekkente ne da ngaa am nekk responsable ci barab wala almuhim nit nga daal fexeel ba ñi ngay àndal nga tànn leen xam leen. tey nañ nekk nit ñoo xam ne nii bokk ngeen ay jubluwaay xan na xëy na tam yéen a bokk lu ngeen di yëngu ci wàllu métier waaye àndandoo boog koo gis jaxasoo moom ñaare baraana lu ñu lay dugal ci loo xam ne nii ak rëcc moo ciy mujj kon ñooñu tam war nañ cee yéen nit ñu baax a baax maanaam képp koo xam yaa ngi liggéey di di saytu alal jox ñëpp ko bokk bàyyi xel bu baax ñi ngay jaxasool ak ñi ngay àndal ndax mën nañ laa yóbbee loo xam ne ni ëllëg cappaandoo ji ci sa bopp lay wàcc si fexe tam ba nit ñi gëm ne suñu borom ëllëg ku nekk danga taxaw ak moom dong yaa ak moom dong ngeen wéet mu rek ak yow la nga doon def te lépp loo def fii ci àdduna nag ëllëg dañ koy réglé alxuraan day wax ne bis dana ñëw nga xam ne nii làmmiñ day taxaw seere loxo taxaw seere tànk taxaw seere ñëpp cër yëpp dañuy taxaw seere boobaa nag ci misaal te yow loxo bi mën naa taxaw seere ba loxo bi day wax te loolu du kiim daan ndax yàlla mi ne làmmiñ waxal mu wax bu ko nee xam ne loxo waxal mu wax loolu du kiim kon bu soobaa suñu borom daan loxo bi waxal loxo bi day wax ne signature sàngam day ba signé woon sec sàngam bañ lekk alal jooje mën mi maa ko signé woon te doo ko mën a weddi boobaa da nga koy sa tànk mën naa taxaw ne bis ba dem di jëli kees sàngam di ko këpp day tànk bi man mi maa doxoon dox booba doo ko mën a weddi kon nit ku nekk na nga gëm ne sa cër yi dañuy taxaw seere la bis ci kanam yàlla loolu nag boo ko xamee cër bu nekk da bàyyi xel ci la nga cey jëfe te loolu nag bokk na ci lii tax nit ñi mën a bàyyi xel ndax nit ñi boo ragal ragal sawara moom ak bëgg àjjana moom mën nañ cee jaar bu def ñoom lu baree bari moo tax fexe ba nit ñi amul ragal lu ñuy ragal waaye itam fexe ba am lu leen di motiver ñaar yooyu mooy ponk yi nga xam ne képp ku yar doomu aadama moom ngay boole mooy motivation ak fexe ba nit ki am lu muy wekk lu muy ragal kooku moom kenn mënu ko mën cee ñàkk bañ jëfandikoo ñu fexe ba yéen ni ñi gëmal leen ne ñun njariñ li ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy jariñ maanaam li nga nar yàq sunu njariñ la ñun ñëpp te aar intérêt mbooloo mi nag dafa ñoo war ñun ñëpp lislaam dafa jàngale woon ne nee na jullit ak moroom ja dañoo war a mel ne wenn yaram yaram ku nekk xam na ne am na tànk am na loxo am na nopp am na bët am na yu mel noonu waaye fi ne bu loxo baaram bi donc bu doon métti te fajtaloo ko bu yàggee yaram wépp ay àndandoo di métti maanaam dañu mel ne dañuy solidarité nga gis yaram tàng dootoo mën a nelaw dootoo mën a lekk mu ne jullit nag noonu la ñu war a mel ci sàmm li ñu bokk mooy fu ab jullit nekk di am souffrance di souffrir ci dara te moroom bi jullit yëguñ ko rek jàppal ne islaam des na ci ñun kon nag loolu ñu gëm ne ñun dañoo bokk lu ñu war a jariñoo war koo sàmmante war cee bàyyante xel loolu ci la bokk te ñu gëm ne tam nag alal ñëpp bokk tam nag bu ñu ko yàqee tam li muy li muy yàq de bari ndax yow yow boo ko jariñoo tam maanaam li mu yàq dafay bari ndax dana tax état bi du dox la mu waroon liggéey du ko liggéey ña waroon a jariñ duñ jariñu maanaam ci misaal tey man ngaa rey nangami bakkan man ngaa indi nangam yi waroon jàng duñ jàng ndax ba école ba ñu waroon a jàngee ñu tabax loolu nga dem lekk xaalis ba wala hôpital ba ñu waroon a ñu tabax loolu nga dem lekk xaalis ba ay junni junni nit waroon faa fajoo xëy faatu jàppal na ñooñu faatu kay dañ ci am responsabilité ñee ñoo waroon jàng te jànguñu ndax waroon jàng yaa ko lekk am nga ci responsabilité loolu nag lu man di bàyyi xel la li na bi ci mujj nag mooy ku nekk nag nga def sa auto contrôle maanaam sa auto autocritique maanaam ku nekk ci ñun boo xëyee ba ngoon jot boo tëddee ba dal war ngaa defaat film bi nga xëyee ba mi nga tëdd lan nga fi def nga indiwaat ko xoolaat ko jàngataat ko xool rëq-rëq yi ci nekk njuumte ci mata jubbanti nga fexe ba bu ëllëgee mu bañ laa dal nga gis ne tey jii gat xëy na xaw naa ëppal xaabaabal ci nangam nga fexe booba lu ëllëgee mu laa dal yooyu yëpp da lay dimbale mooy tax da maanaam rëcc du la dikkal fekk rëccu dafay weesu bala ngay rëccu rëccu di weesu fekk loola bàyyi woon nga ko xel loolu daal xam naa ne sëñ bi lenn la ci li nga xam ne ni bëggoon nañ koo jukki ci tomb bu am solo bii nga xam ne mooy sàmm alal ji nit ñi bokk muy jafe-jafe boo xam ne nii nag àddina bépp koy jànkoonteel waaye rawat na suñu réew yi suñu réew di Sénégal am nañ problème bu mag bu wér ci ne alal ji ñëpp bokk moom ànd na ko sàmm jafe na nit ñi lool lool mu indi nag ay loraange yu baree bari ci biir askan wi waaye itam gàllankoor ay jéego yu ñu waroon dox ci développement ak progrès loolu gàllankoor ko te loolu rek ko waral te it nag dañ bàyyi xel ci ne toog fii naan programme ak projet dañuy développé nangam nangam di waxtaane ëllëg maanaam mënta nekk lu dul ñi ko war a jariñoo dañoo am conscience bu ma sëkk bu leen di guider ci li ñu war a def ak li ñu warta def nit dafa war a xam li yell ak li yellul li yell nga di ko def li yellul nga di ko bàyyi ñoo ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa barakaatu. macha allah sëriñ Fallou Bousso Assane yaakaar naa tomb bi indi nga ko nu kawe njort mboolem ñi ko doon topp tey gën nañoo xam alal ji ñépp bokk ban taxawaay lañ ci war a am en tant que ay citoyen macha allah faramfàcce nga ko ni nga ñu leerale lan mooy li ñëpp bokk suñ ko bëggoon a xam ci li nga xam ne ñaari xaaj la benn xaaj bi mooy li nga xam ne mooy yi ñëpp bokk tem nekk ci réew mi moo xam ay alal la walla yeneeni mbir lu mel ni ay école walla ay jàkka walla ay espace public ay université ay société euh, ba ci ay hôpitaux yu mag yi ba ci banque yeeg yu mel noonu nga xam ne ñépp ko bokk askan wi dund ci réew mi ñoo ko bokk am taxawaay buñ ci war a am waaye itam mu am beneen xaaj boo xam ne waa àddina bi yépp ñoo ko bokk lu mel ne géej yeeg océan yi wala mën nañoo wax sax ngelaw li wala environnement bi muy aalam ji loolu itam taxawaay bi nga xam ne moom la ci nit ñi war a am ci war ko sàmm waaye itam nga wax lu am solo muy loi yi nga xam ne war nañ koo tëral ngir jéem a sàmm li ñépp bokk ndax itam bu amul ay loi ngir ñu sàmm ko dana dana jafe tudd nga ci yu bari duñu yem ci loi yi waaye dañuy tëral ay sanction ay daan ci képp koo xam ne jalgati nga li ñépp bokk moo xam alal la moo xam lu mu mën a doon loolu bi ci njëkk mooy dañ cee ni ko waxee moom dañ cee war a yar ndaw ñi jàngal leen ci tàggat leen ci ndax nag ci li nga mujjee aw askan dee su ko tëralal programme waaye jëmmi société bi ci boppam ngay tabax ba ñu ba conscientiser leen ba ñu xam ñooy kan mooy tax ñu xam ni ñuy dunde ci société bi loolu tamit di lu am solo loo xamante ni mënees na koo jànge ci ci ci waxtaan wi euh, zahira jalgati gi am ci biti yaakaar naa fés na lim nga ci yu baree bare tàmbalee ko ci biir réew mi gis nañ jamono yi weesu at yi weesu ci li fi am ci ay yëngu-yëngu lim ñu jural ci ay jafe-jafe maa ngi fàttaliku am na dëkk boo xam ne yëngu-yëngu moo fa am ñu attaqué état civil ba mairie ba ñoom waa dëkk ba ci boppam attaqué état civil ba yàq ko lakk kayit ya xottite kayit ya lu mu leen jural man daaw ba ren ñi ngi daw ci benn extrait de naissance mënuñ ko am est-ce bu ñu xamoon ne état civil bii moo seen moomeel la te moo leen di aar te suba ginnaaw suba dañ ko dañ ko soxla kon duñ jalgati jëme ko ci état civil ba noonu lay askan wi itam di jalgati jëme ci yeneen jëme ci yeneen wax nga fi assainissement bi ci canal yi nga xam ne moom la moom la askan wi ni mu amee ñuy taxaw di ko di ko di ko toppatoo di ko defar nga xam ne loolu tam exemple bu am solo la boo xam ne bu ñu war a yaatal la bu ñu war a fésal la waaye itam noonu la amee ñu taxaw di ko jalgati ba mu jur ay loraange bari na ay inondation yu am ci ay gox yoo xam ne loola moo ko waral ni ñu jalgatee inondation yi moo ko waral noonu itam la ñuy jalgatee lu jëm ci wàllu ñi nga xamante ni dañuy dañ leen a jox masalan ay marché ni nga ko waxee ay ab appel d'offre boo xamante ni dañ koo war a teg ñu ñu def ko gré à gré marché bi yaa ma neex wala sax ki ko gañe dëgg la joxe na formule bu baax ba tax ñu jox ko marché bi waaye bi mu koy réalisé def na ci ak jalgati nam ko waroon a tabaxee tabaxu wu ko dosage ba waroon a am ca brique ya defu ko dosage ba waroon a am ca ciment ba defu ko yam jumtukaay yam waxoon ne moom lay utiliser ci tabax bi ba tax tabax bi war a mën a am garanté wu fanweeri at du ko def ba tax na tabax boobu bu amee ñetti at wala ñaari at rek nga gis mu tàmbalee yàqu loolu itam sàcc la jalgati la bakkaar la ndax alal ji ñëpp bokk moom moom moom nga yàq loolu bari na bari na ba ci ger gi ger gi ni nga ko waxee corruption bi bokk na ci li gën indil jafe-jafe askan wi ndax loolu day dellusiwaat ci ci askan wi état bi du mën a liggéey du mën a réaliser lu bari ndax lépp lu mu defar ay at mu yàqu ñu wëlbati ko nga xam daanaka duñ duñ dox dañuy avancé ko arrière dañuy avancer ko arrière te loolu li ko waral mooy jalgati gi ñuy jalgati li nga xamante ni mooy moom la ñépp bokk loolu mën nañ wax ne ci ci ci ci ci ci réew mi yëpp la waaye ñun fii ñu dëkk rek exemple yi nga fi joxe day yu am solo yoo xam ne ni ñuy jëfandikoo mbedd yi rek mbedd yi mbedd léeg-léegi nga yor oto di ko dawal dugg ci am mbedd ba xaajal ko dëppaat fekk ñu sotti fa suuf benn waaye sotti fa suuf teg fa ay mëlkatam ñuy mool rangé mbedd mi yëpp ay birig nga dëppaat nga gis mbedd moo xam da ngay dem ba ci digg mbedd mi nga dëppaat ndax sotti nañ fa mbalit wala ay ndox yoo xamante ni kenn mëntu faa jaar te image boobu day wone melokaanu citoyen yi dëkk ci dëkk bi gan gu ñëw li muy xamee ñi dëkk ci dëkk bi ñu ñu ñu ñu ñu fonk seen réew la ñu sàmm seen alal la mooy mi ngi koy xamee ci environnement wu dëkk bi ci mbedd yeeg yu ni mel loolu yaakaar naa zahir la boo xam ne bu feeñ ci Touba la jëlale naa nag ni nga ko waxee espace yi nga xamante ni dañ koy dagg ay réserve ndax norme yi nga xamante ni moom la urbanisme am mooy fu ñuy dagg ay ay ay ay terrain danañ fa bàyyi ay espace yoo xam ne espace public lay doon yu ñu mën a tabax école man faa tabax fajukaay man faa def jàkka waaye tey jafe na ci quartier boo dem tey bu ñu bëggoon am ab poste de santé fu ñu ko tabax sana leen jaaxal xanaa dañuy jënd espace tey ku am sañ-sañ rek moo ñëw jël ko tabax ko dagg ko këram wala sax mu jaay ko loolu itam bokk na ci li nga xamante ni mooy jalgati ak ji nga xamante ni ñëpp a ko bokk noonu itam ci service yi boo demee yàq googu nga fay fekk jël auto service yi di ci def lu leen neex jël euh, téléphone ya wala courant ba ci ci Sénégal sax da ngay gis koo xamante ni jàpp na ne euh, sàcc courant sax lu dagan la te yow yaa ngi yàq li ñëpp bokk ndax courant bi ngay sàcc lu lu lu askan askan wépp moom la kon amoo droit di ko jalgati kon yooyu di mbir yoo xamante ni euh, leeral nga ko muy lu am solo loo xamante ni war nañ cee bàyyi xel xissa Omar ibn Abdul Aziz bi nga wax lu leer la loolu ñu bari ñi nga xamante ni dañuy jiite ay ay ay mbooloo war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax nga xam ne sondeelub état bi bu koy taal day fekk muy waxtaane mbiru réew mi waaye nag bu noppee ci mbirum réew mi alali boppam muy sondeel bi moomal boppam day taal loolu Seydina Omar ibnu Xattaab waxoon na ko law ishtaka ba'irun fil iraq la sa sa'alani li ma lam uslih laha tariq su benn giléem fakkastalu woon ci mbedd iraq yii bu yomal xiyaamee yàlla dina ma laaj lu tax defaruma mbedd mi ba misaal la ci war nañoo bàyyi xel bu baax a baax li li li li ñëpp bokk kon Serigne Fallou ñu ngi sant bu baax a baax ci waxtaan wi ak doxin wi ak ni ko tëralee jariñu nañ ci bu baax a baax di ñaan suñu borom defala la tawfiq euh, sàmm la yokk xam-xam bi kon mbokk yi ñu doon topp suñu jataayub suba di ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent ñu ngi war a waxtaanee at tarbiyatu ruuxiya inda cheikh al qadim maanaam yar ruu